yi ñu ngi leen di nuyu am mbégte àndaat ak yéen ci seen émission seen kaddu émission seen kaddu émission bi nga xam ni moo leen di delloo kaddu gi bis mu ne mbokk yi altine ba àjjuma euh, di ànd ak yéen ci ay ponk yi waxtaan yoo xamante ne euh, sénégalais yi fu ñu mën a ne ci réew mi rek dañuy mën a woote joxe seen xalaat gannaaw ba ñu leen nuyoo yéen sénégalais yi nga xam ne yéen a nekk ci biir réew mi nuyu également mbooleem sénégalais yi nekk bitim réew saa su ne di topp 2A TV à travers programme ñu ngi leen di jaajëfal am mbégte bu baax ci topp bi ngeen ñi topp ci chaîne bi euh, di leen ñaan nag ngeen continuer di abonné wu di partager également les vidéos bu ko defee ngeen mën a dimbali ñeneen ñi nga xamante ne xëy na euh, war nañoo mën a ñëw bokk si ci yëf yi aussi ñu mën cee bokk tey mbokk yi euh, émission seen kàddu ñetti ponk la leen indil bi ci njëkk mooy ci wàllu tàggat yaram sénégalais yi nga xam ne ñi ngi wax ne dañoo war a jëli nasaraan bi di Hervé Renard dénk ko suñu équipe à la place de Aliou Cissé loolu euh, ban jàngat ngeen ciy def ndax yaakaaru leen ne loolu aussi mën na tax ba xëy na Aliou Cissé ak gone yi mu àndal du ñu sawarati ci mbir mi euh, loolu mooy ponk bu njëkk bi ñaareelu ponk bi comme ni ngeen ko xamee gannaaw ba gouvernement bi annoncé ay mesures ne dafay wàññi njëgu dund gi euh, association wala bokk ak kuréel yi nga xam ni ñu ëmb mbooleem boutique yi nekk ci àdduna bi ñoom yi nekk Sénégal pardon dañoo fas yéene nag dugg ci ab grève boo xam ne nee nañu suba incha allah ci la koy tàmbalee ndax ñoom nee nañu d'accorduñu ci njëkk yi nga xamante ne moom la gouvernement bi di proposé pour nag ñu jaayee ko lenn ci njëkk yi askan bi war a dundee loolu moo waral suba ñu war a dugg ci grève loolu nag naka ngeen ko gisee ndax jàpp ngeen ne gouvernement bi dafa def lu mu warul def wala ndax boutiquiers yi ñoom it war nañoo mën a góor góorlu jàppale askan bi loolu ban jàngat ngeen ci am ñetteelu ponk bi mbokk yi mooy coowal troisième mandat ndax ni ngeen ko xamee coow li ba léegi pënd ba wuréegul waa kër Macky sàll yi ñoom ba léegi ngi jàpp fi ñu jàpp deuxième quinquennat nee nañu loolu la ñu bëgg ñoom opposition bi aussi dégg ngeen démb conférence de presse bi nga xamante ne waa yeewi askan wi ñoom ñoo ko def Ousmane Sonko Khalifa Sall ak ñañ ci àndal euh, àdduna ñu jëmee ci mbir mi. Euh, te it nag euh, njort nañu ne daal fi mu toll nii réew mi daanaka dina duggaat ci guute goo xam ne bu ci duggee aussi mara deytaal yi jafe-jafe yu metti mën na caa mën na caa tukkee donc loolu mbokk yi mooy ñetti ponk yi nga xam ne tey. Euh, bëgg nañu euh, ci waxtaan ak yéen ubbi ci aussi antenne bi euh, ubbi leen ligne bi dalal leen ci 2A TV ci seen émission seen kàddu ndax émission bi seen kàddu la tudd kàddu gi yéen a ko moom dañu leen di delloo kàddu gi ku ci bëgg àddu ci ñetti ponk yi nga xamante ne wax naa ko rek ñu teewlu la hmm, déglu la aussi déglu sa xalaat déglu sa kàddu aussi ci ponk yi nga xam ne xëy na kenn ku ci nekk bëgg na cee àddu di jaajafal waa régie bi tey ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi Mansour ak ñoom ñëpp ñoom soxna Ndaak liggéey bu rafet bi ñu ngi leen ci jaajëfal di jaajëfal aussi waa fajaru yi nga xam ne ñoom ñoo fi xëy si tey ànd ak yéen ñun ñu war a nag tàmbali euh, war a nag wéy ba midi bu ñu demee ba 11h ñu dalal suñu gan waaye laataa loolu nag dañu leen di ubbil ligne bi ci seen première partie émission seen kaddu tey mbokk yi ñetti ponk la ma ko. bonk bu njëkk bi mooy euh, coupe du monde bi Sénégal premier match am la def waaye defet ba bañ ci jëlee tax na ba ñenn ci sénégalais yi daal di euh, wax ni euh, nañu jox équipe bi Hervé Renard mi nga xamante ne mooy waaw xonq nopp boobu pour ñu jox ko équipe bi mu wuutu Aliou loolu ndax jàpp ngeen ne c'est le moment est-ce que aussi ya yaakaaru ne loolu bu jibee xëy na mën naa tax ba Aliou Cissé mi nga xamante ne moo tax ñu am Coupe d'Afrique Euh, lu ñu musta am moom ak gone yi mu àndal aussi euh, mën nañ ci jëlee euh, découragé ba fulla jax di ñu amoon ci mbir mi xëy na dootuñ ko ci amati loolu daal mbokk yi bëgg nañu ngeen wax ñu naka ngeen ko gisee numéro yi ñu ngi noonu bu fekkee yaa ngi ci biir réew mi da ngay woote ci 88 628 73 13 88 628 73 13 bu fekkee ci biir réew mi nga ne bu fekkee bitim réew nga ne nag ak réew boo ci mënti ne mën ngaa woote ci 00221 77 914 64 93 mooy numéro boobu affiché wu ci écran bi te mu am logo WhatsApp bi bu fekkente ne da ngeen a nekk bitim réew ci numéro boobu ngeen di wootee di jaajëfal nag mboolem sénégalais yi nga xam ne ni ki démb woote nañu fii euh, te nekk bitim réew waa France waa waa Allemagne waa Norvège euh, ñoom ñëpp vraiment ñu ngi leen di jaajëfal parce que gis nañu aussi ni ñuy ni ñuy toppee li nga xamante ne moom moo di 2A euh, TV rawatina émission bi di seen kaddu. kon mbokk yi ponk yi euh, ma baamtuwaat ko tey euh, ponk yi nga xamante ne euh, fas nañ ci yéene waxtaan ak yéen fas nañu yéene aussi déglu ci seen kàddu taataan ci aussi seen seen xalaat mooy bi ci jëkk mbiru football la mbiru équipe nationale ndax gis nañu sénégalais yu bari ci internet bi di sàkku daal équipe nationale bi ñu jox ko Hervé Renard loolu nag li ñu leen ci laaj mooy ndax jàpp ngeen ne moment bi ñu koy waxee mooy moment bu baax bi ndax suñu gaynde yi benn match rek la ñu jonganteegum donte dañ koo ñàkk ah, ndax loolu aussi du tax ba ñoom gaynde yi rawatina Aliou Cissé xëy na daal di mujj découragé ci sénégalais yi ah, ndax yaakaaru yaakaarul ne nag ci moment bi vraiment la war a gën a taxaw nag pour jàppale suñu équipe nationale ah, loolu mooy laaj bu njëkk bi deuxième laaj bi mbokk yi mi ngi euh, jëm ci grève bi nga xamante ne euh, boutiquiers yi ñoom nee nañu daañu grève suba euh, ndax d'accord ñu ci njëkk yi nga xamante ne moom la gouvernement bi bëgg a pour ñu jaaye ko yenn ci li ñuy jëfandikoo loolu euh, ban jàngat ngeen ci am bu mujj bi nag mooy mbiru troisième mandat ndax coow li ba léegi leeragut ki nga xamante ne mooy yor réew mi di Macky Sall ba tey waxagul fu mu ci jëm newul waaw newul déet ba tey. la mu euh, nekkoon ba tey mu ngi ci teewul nag opposition bi ñoom ba léegi vraiment ñu ngi yëkkati seen kàddu di wax ni ki démb rek waaye Yewwi Askan Wi def nañu conférence de presse fii ci Ndakaaru euh, pour nag àddu ci ponk yu baree baree bari rawatina nag coowal troisième mandat ndax nag bokk na ci coow yi nga xamante ne wax dëgg yàlla mën na indi jëyee ci réew mi ñaanuñu ko yàlla waaye daal naka la ñu war a mën a def daal ba vraiment coow mandat yi moom nekk loo xamante ne luy doon suñu luy nekk suñu ginnaaw lay doon bëgg Euh, di ci di ci di ci di ci dikkaat donc di leen jaajëfal euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax yéen ñu ñuy topp ci live bi ñuy toog di seetaan ñépp euh, mën ngeen woote ci numéro yooyu affiché wu ci écran bi ku ci neex rek wooteel bu fekkee yaa ngi ci biir réew mi numéro 88 628 73 13 ngay woote bu fekkee bitim réew nga nekk nag ak réew boo mën a ne rek mën nga woote ci 00 221 77 914 64 93 donc di nuyu gars yi yëpp soxna Aminata yow mi njëkk a ñëw ci commentaire yi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Aminata euh, moom defe naa moo njëkk a euh, ci live bi jërëjëf gis nañu li nga bind <laughs> waaw sénégalais yi da xam nga ku nekk ak ndeysaan euh, gis-gisam rek waaye yaakaar naa ne daal fii équipe national bi toll wax dëgg yàlla nag war nañoo mën a wax lu ne ba mu des di xalaat ku fi wuutu Aliou Cissé. Eh, ndax nag wax dëgg yàlla eh, Sénégal mës ta jël coupe d'Afrique waaye nag yàlla dogal na ne daal ci ayuk Alioune Cissé eh, ci la ñu jëlee coupe bi benn match la joganteegum ci mondial bi ñàkk ko est-ce que loolu war naa tax ba sénégalais yi bëgg ko utal ku ko remplacer xaat te demaguñ fenn bay sàkku équipe bi ñu jox ko Hervé Renard loolu moom mbokk yi naka ngeen ko gisee ban jàngat ngeen ciy def. est-ce que nag du tey wala la war a gën a taxaw ci ginnaaw Aliou Cissé taxaw ci ginnaaw équipe nationale bi aussi donte souvent aussi li ci doxul aussi mën nañ ko wax mën nañu wax li doxul ndax wax li doxul aussi euh, day tax rek mu mu gën a dox ñu mën ko teel a joyanti waaye nag dem ba ci wax dëgg yàlla ut ku ko wutu te demagul fenn mi ngi doog a tàmbali coupe du monde bi loolu ban jàngat ngeen ciy def euh, numéro yaa ngi noonu affiché wu ci écran bi deuxième point bi mooy boutiquier yi boutiquier yi ne ci réew mi ñoom d'accorduñu ci njëkk yi nga xamante ne moom la gouvernement bi appliqué donte gis nañu <laughs> ministre bu mel ne Abdou Karim Fofana di wax ne 75 pour cent ci boutiquier yi yëpp ñoom ñi ngi doxal njëg yi waaye euh, am na ci daal genn wàll goo xam ne ñoom ci boutiquier yi ñoom ñi ki suba ci la ñu fas ne dugg ci grève waaw grève boo xamante ne nag moom xam naa ne ñun baadoola yi ñoo ciy gën a sonn nag ndax ñun bu ñu soxlaa dara ci boutiquier bi la ñuy dem hmm, jëli ko rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu détaillant yi ñoom daanaka ñoo yor koñ yeeg gox yeeg gox goxaat yi eh, ndax grossistes yi souvent fa ñu nekk ñu ci bari duñ ci mën a jote donc butikee bi ne ci koñ bi daanaka ñu bari fa la ñuy fa la ñuy fa la ñuy eh, ndugge eh, mu mel ni kon ñoom bu ñu duggee ci grève est-ce loolu moom baa du gën a metti ci askan wi loolu naka ngeen ko gisee ñetteelu ponk bi mooy mbiru troisième mandat coow li ba léegi mi ngi ne cooboy ci réew mi waa Kër Macky sàll ñoom ñu ngi wax deuxième quinquennat moom ndeyu mbi léegi nag ba léegi kenn dégg ko waaye teewul opposition bi ñoom ñu ngi continuer di yëkkati seen kàddu ndax démb euh, def nañu conférence de presse boo xamante ne Ousmane Sonko euh, ñoom xalifa Sall ak ñoom Déthié Fall ak gaa yooyu yëpp mbokk euh, yeewee askan wi ni ki démb rek ñëwaat nañu ci question boobu la muy coowal troisième mandat ah la ñu ca bëgg nag mooy njiitu réew mi wax lu leer askan wi te it nag mu jël ses dispositions ba bañ a bokk ci yooyu les élections loolu mooy càkkutéefu waa yeewee askan wi. njiitu réew bi nag moom ba léegi moom mu ngi mi ngi mi ngi jàpp fim jàpp kenn dégg ko mu wax ci donte waa këram waa këram ñoom ku leen dégg moom dalay leer na ñii euh, euh, ci euh, wut beneen candidature la ñu ne te loolu moom daanaka leer na parce que ñu bari ci ñoom ñu ngi génn léegi di ko wax ci média yeeg fépp fu ñu taxaw di wax ne Macky Sall mooy seen candidat Macky Sall mooy seen candidat loolu ndax du jëmee réew mi ci guuta loolu mooy laaj bi ku ci bëgg àddu rek mën ngaa woote ci numéro yooyu nga xamante ne vraiment euh, ñi ngi euh, affiché wu ci ecran bi di jaajëfal nag gars yi nga xam ne vraiment ñi ngi ci ñi ngi ci live bi yëpp ñi bind ak ah, ñi nga xamante ne ñu bind euh, préféré ñoom toog seetaan déglu ñooñu yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ah, bu nga nekkee ci biir réew mi jaajëfal nañu leen bu nga nekkee bitim réew aussi ñu ngi leen di jaajëfal te di leen ñaanal nag surtout yéen sénégalais yi ne bitim réew parce que nag xam nañu ne affaire yi c'est pas évident yombul fépp metti teewul yéen a ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla di euh, daan seen doole ngir nag taxawu seen bopp taxawu seen njaboot taxawu aussi réew bi nga xamante ne moom la ñu bokk ñun ñëpp muy euh, réewum Sénégal euh, donc tey émission seen kàddu bi émission bi nga xam ne moo leen di delloo kàddu gi ñetti ponk la leen indil bi ci njëkk mooy li nga xamante ne moom moo aju ci mbiru Aliou Cissé mi nga xam ne tey daanaka mi ngi doog a tàmbali coupe du monde bi benn défaite lañ ci amagum ñu ñaan mu yem foofu match yi ci topp yépp nekk ay victoire ba ñu jël coupe du monde bi pourquoi pas mais dañu seetlu ne dafa am sénégalais yu ne ci internet bi di sàkku ñu jox équipe bi Hervé Renard Hervé Renard moom xonq nopp la boo xam ne defe na su ma juumul moo yor équipe bi di Arabie Saoudite moo leen di euh, entraîner waaye laaj bi mooy est-ce que vraiment loolu c'est le moment euh, genre débat yi est-ce que jot na est-ce que du aussi gënuloon ñu xaar ba xëy na mondial bi passé ñu doog Euh, soulever yooyu la question ndax ki nga xamante ne mi ngi doog a tàmbali euh, jongante benn match rek donte da koo ñàkk waaye coupe du monde bi jeexagul est-ce que aussi euh, loolu du tax ba Aliou sa xëy na découragé ci Sénégalais yi même joueurs yi aussi loolu mooy li ñu leen di laaj ku ci am xalaat ku ci am kàddu ñi ngi koy ñi ngi koy xaar mën nga woote ñu jël la en direct bu ko defee ñu teewlu sa xalaat ñaareelu ñaareelu laaj bi mbokk yi. mooy boutiquiers yi boutiquiers yi ñoom suba nee nañu dañuy dugg ci grève boo xam ne lañu ci ca jublu daal mooy wane seenu ñàkk ànd ci euh, euh, prix yi nga xam ne gouvernement bi nee na prix yooyu léegi moom la ñuy jaayee lenn ci njëkk yi ñuy jëfandikoo waaw googu boutiquiers yu bari nee nañu ñoom ànduñu ci ba tax ne daal suba suba euh, daañu fas yéene banque seen loxo loolu aussi naka ngeen ko gisee ndax buñ ci duggee jàpp leen ne xëy na baadoolo yi mel ni man ñoo ci ñoo ciy gën a sonn ndax ñoom nee nañu d'accord ñu ak gouvernement bi ci vraiment li nga xamante ne euh, moom la bëgg a doxal ci euh, wàllu prix yi euh, loolu ban xalaat ngeen ci am beneen laaj bi muy ñetteelu laaj bi mooy mbir troisième mandat vraiment naka la ñuy def ba lu ni mel aussi façon yii mën a nekk loo xamante ne lu ñuy weesu la ci réew mi bañati duggati ci ay troisième mandat lu ni demee waa kër Macky Sall yi ñoom ba tey ñu ngi jàpp fi ñu jàpp nee nañu Macky sàll mooy doon seen candidat doonte moom Macky Sall nag <laughs> sénégalais yi ñu ngi koy déglu. Euh, opposition bi aussi ñoom it ba tey ñu ngi ñu ngi def seen manin ah, ñu ngi ci euh, di euh, di interpeller ki nga xamante ne moom moo di le président de la république Macky Macky sàll parce que waa yeewi askan wi ñoom jàpp nañu ni lu jiin njaag daal Macky Sall lañ njaag moom mi nga xam ne moo war a yeewi askan wi nag ci coowal mandat yi te yeewi askan wi li ñu bëgg mooy moom Macky Sall mu xam ne élection yi mënatu cee bokk te loolu da ko war a leeral ba mu leer naññ loolu mbokk yi mooy ñetteelu laaj bi nga xamante ne euh, moom la ñu leen di euh, indil tey ci seen émission seen kaddu donc ñi bind aussi vraiment ñu ngi leen di jaajëfal ah cyber Skype mu ne il faut aider Aliou Cissé et pas chercher à le waaw loolu lu am solo la Aliou Cissé fi mu toll nii jamono yi yaakaar naa ne ku ko gën a dooleel la gën a soxla ku koy wàññil doole loolu moom leer na. Euh, donc ñaa euh, Modiane ñaa Modiane mu ne euh, je voulais dire ils ont fait la même chose avec Matar Ba loolu aussi muy lu doy waar dans tous les cas yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi bind aussi jàpp leen ne am ngeen possibilité woote en direct ci numéro boobu am logo WhatsApp bi ma baamtu ko bu fekkee numéro bi dafa tuuti ci yéen ba mënu leen koo gis ah da ngay cent 00 221 77 914 64 93. 00 221 77 914 64 93 mbokk yi mooy numéro bi nga xamante ne yéen ñi nekk bitim réew moom ngeen di woote pour mën a bokk ci émission bi régie donc bu amee ko woote rek ñu jël ko bu amee ko woote ñu jël ko bu ko defee euh, ñu tàmbali nag euh, euh, jël xelu jël jël jël xalaatu xalaatu gaa yi bu ko defee. Euh, ñu ubbi ligne bi ci seen émission seen kàddu seen kàddu moom daa tënk wax ji euh, daanaka kàddu gi moom seen kàddu la euh, émission bi nag moom mm, loolu la ubbil ñëpp ligne bi ku ci nekk xalaat boo ci mën a am rek ci ponk yi nga xam ne vraiment ñu ngi koy indi aussi ngeen mën a woote muy coowal troisième mandat li nga xamante ne ba léegi mbir yi mi ngi continuer di wéy daanaka élection yi ñaari at nga ci des wala sax lu ko gën a tuuti moom moo ci des te wax dëgg yàlla dara leeragu ci ci euh, mbiri euh, président Macky Sall bi nga xamante ne euh, tey opposition bi démb rek ci seen conférence de presse bi vraiment nee nañ ko waroo cee bokk. ñu jël mbokk mi ci ligne bi bu ko defee ñu taataan xalaatam salaamaaleykum. waaleykum salaam tala sëñ bi na nga def. waaw sëñ bi na def waay. ziar na la bu baax baax. alhamdulilah ñu ngi si liggéey bi. ñu ngi sant bu baax fooy wootee mbokk mi. waaw ñu lay. maa ngi wootee Beijing Pékin. ah Pékin d' accord. wa accord ñu ngi lay déglu yaa ngi en direct waaw en fait man de si beneen position bi rek benn mooy affaire euh, affaire ma marche en fait. Hmm. grève boutiquier laa bëggoon wax. parce que man je pense que ne ñoom tamit ils ont le droit quand même di def woote manifestation woote grève ndax boo xoolee. affaire bi dañ ko bëgg a partager entre le gouvernement qui impose ses règles. Mm-hmm. ak population bi nga xam ne naam soxla nan ndimbal soxla nan prix wàññeek. Mm-hmm. boo xoolee ñan ñoo nekk entre le marteau et l'enclume. Mm-hmm. moom mooy boutique yi amuñu fu ko jooyee. boo xoolee marge de manœuvre ñun ñëpp Sénégal lañ juddoo xam nañ ni mu fa demee xam nañ marge de manœuvre bi boutique yi di daw. marge de manœuvre bu ndaw la. kooku boo ko bëggee tronkat tuuti rek du baax si ñoom. day métti de ah fekkee la majeure partie bu dikkee yi waa mais quand même liyante am nag ñoom jàmm amante ñoom salaam te en plus képp kuy liggéey rek ak foo mënti doon. Mm-hmm. xam nga ne daan dafa métti bénéfice bi ngay dàq si si si si jaay bi bëriwul boo amee tuuti xel rek di nga li nga comprendre ne situation bi. Mm-hmm. yombeewul comme gouvernement bi ni mu ko ni mu ko bëgg a ni mu ko bëgg a defee. même chose bi tamit si boo xoolee côté loyer également. Mm-hmm. loi yi ce ce sera juste benn bataille entre locataire ak bailleur finalement day mujj ci ay xeexoo. Hmm. génnal sama kër après finalement uti beneen locataire ki uti beneen kër foofu lak lay mujjee donc l'heure la boo xam ne gouvernement bi daf ko sànni noonu. Hmm. noonu pour wax ne wàññi am na wàññi am na genre mel noonu xam nga malheureusement man parce que j'ai la malchance je dirais. d'avoir vécu presque la majeure partie de euh, sama âge da ko def à l'étranger mais des sama xol bi day métti métti métti boo xam ne <laughs> lépp loo gis lu baax la da ngay yàq bëgg da bëgg mu nekk sa réew dëgg la du demee noonu da gis ne lii sans politique bu ñu si dugalul politique def ko nu mu waree rek ku nekk war nga see gis sa bopp mhm. dëkk bi avancé Sénégalais yi dund beneen façon dund parce que lii li ne ñeneen ñi dund seen dëkk confort bi ñuy dund di avancer di yëg ne ñoo ngi avancer. ñun mm. mérité nañ ko mais pourquoi ñun tout le temps on est dans des problèmes tout le temps il faut ñu woote walla bu ñu dimbali tout le temps ñun daal ñëpp mérité nañ avancer ba mu des Sénégal. mais mais malheureusement ñun suñu malheur gën a mag. doguma la doguma la mais Afrique moom. mais gis nga gis nga li ngay wax noonu. c'est ah, tellement vrai que même gis nga coowu. Mm-hmm. troisième mandat bi à chaque fois daanaka chaque dix ans wala chaque douze ans day ñëwaat est-ce que loolu aussi vraiment waruñu ko dépasser nag ci réew mi. non vraiment man tous les jours bu ma yeggee bureau li may njëkk def mooy ubbi xool information mais sama xol bi day bëgg a wadd hmm. sama xol bi day parce que tout le temps on répète la même chose la même chose des fois nag pour une benn population bi dañ ci am dañ ci am responsabilité ndax da nga hmm. naan non des population bu amul maturité day yóbbee dëkk di en arrière parce que imaginez xam na benn village bu ma gis ñu may leen benn pirogue def la euh, mu def traversée di école xale yi di dem di jàngi pourtant village boobu ils ont souffert. Mhm. ñu jox leen benn sagaru gaal ak gars yi di fecc di way nga ne non non ñii moom <laughs> vraiment ñu ngi si nelaw bu métti métti ko. donc métti na mais sénégalais yi tamit ñoom ñoo war a dimbali. seen bopp. tout à fait pour ñu génn ñoom ñu pour nit waa nit ñi mën leen génne ci situation bi. tout à fait parce que boo xoolee poli ñi ñi politique ñëpp ñu bëri mën nañ see génnal seen bopp mais booy koy def da nga bëgg. Hmm. ñu génn situation muy deru sénégalais muy deru africain. parce que hmm. tant que génnewul ci ndóol bi sénégalais fu mu mënti dem ak noo mënti tekkee duñ la mës a respecté parce que ni lay bu la xoolee ñu ngi gis yow sa pauvreté dëkk ñu ngi gis sa misère bi am sa dëkk à à travers toi ñu ngi gis yow sa condition de vie. boo mhm. xoolee boo xoolee racisme bu ñuy wax yëpp à vrai dire. boo xoolee du bañ naa la nii kese non dal da laa xeeb ndax li ñuy gis si yow da laa xeeb ni ndax ndax say njiit ñi ñuy doxalee da laa xeeb ndax misère bi xew sa yooyu la loolu lan la xeebee mhm. malheureusement nag ay on a ces désolé de le dire ay dirigeants yoo xam ne matuñu dirigeant xamuñu sax de de quoi ça retourne dans le monde enjeu mondial bi lan xamul lan tax xamul bay comprendre dóor yi leen di dóor bu ñu demee ay sommet mm. international du leen joxe les honneurs ñi ñi ngandal ndo ndox alors que ne gars yi roulé nañ leen dans la farine bu yàgg c'est domage mais c'est ça quoi je tenais juste à participer c'est la la première fois. kontaan nañu di leen leen gërëm. merci beaucoup di bu baax waa 2STV. kontaan nañu kontaan nañu bu baax a baax a baax. moom fa muy wootee jazakallah jazakallah xayran. Mm. kontaan nañu ci yow jërëjëf ci xalaat bu rafet bi moom xam naa fa muy wootee sori na de Beijing la wax de ah Beijing. waaw vraiment jaa jaa ngeen jëf sénégalais yi gis ngeen ko de fu ñu mën a nekk rek ah 2A TV mi ngi leen di jaajëfal di leen encourager aussi foofu ngeen nekk parce que xam nañ ne vraiment aussi c'est pas facile ah c'est pas évident euh, nekk sa sori sa réew aussi neexul mais yéen a ngi vous tenez bon yéen a ngi liggéey vraiment di bokk ci liy jëmale kanam réew mi parce que bu ñu xaymaa koppar yi jógee bitim réew rek di aw ci seen loxo yéen doomu doomi réew doomi réew mi nekk bitim réew xaalis bu baree baree bare la boo xamante ne tey bu ngeen fi nekkutoon mu ñaaw ah, comme ni ko gars yi di waxee donc sénégale yépp ñu ngi leen di jaajëfal surtout yéen ñi ne bitim réew di ñu topp saa su ne à travers nos nos donc ñu ubbiwaat ligne bi jëlaat yeneen gars yi ah, numéro bi euh, certainement régie dinañ ma ko afficher dans dans quelques minutes euh, ou quelques secondes pour que nag ñi nga xamante ne ñi ngi bëgg a participer aussi ci émission bi mën a woote ah, yéen ñi ne bitim réew donc euh, ci numéro boobu ngeen di woote 00 221 77 914 64 93 00 221 77 914 64 93 moom ngeen di wootee pour nag bokk ci waxtaan bi ñetti ponk lañu indi tey euh, bi ci njëkk mooy euh, vraiment li nga xamante ne aussi mooy euh, coow li Sénégalais yi commencé yëkkati ci ku fi war a wutu Aliou Cissé ñu bari ñu ngi wax ni Hervé Renard la ñu ko war a jox loolu. naka ngeen ko gisee ndax jàpp ngeen ne vraiment c'est le moment ci moment bi ñu toll nii pour di wutal nag di xalaatal nag euh, vraiment Aliou Cissé ku ko war a remplacer est-ce que loolu jàpp ni mën na tax ba euh, moom Aliou Cissé ak gone yi mu àndal ci mondial bi vraiment xaw a tuuti ci sénégalais yi ndax loolu dina bokk aussi ci li ñu mën a dimbali pour ñu am ndam donc loolu moom mooy première euh, premier point bi waaw ñu jël beneen mbokk mi soog a duggaat yeneen point yi salaamaaleykum. allo salaam sëñ bi. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw bi ñu ngi ziar. waaw yàlla yàlla nangu ziar na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah ñu ngi di karang karang rek. alhamdulilah fooy wootee. maa ngi wootee maa ngi wootee France. France d'accord waaw naka waa France. Ah, ñu ngi fii rek ñu ngi fii di kër kër rek ak seddaay rek taw. waaw c'est vrai de ah bi de moom métti na moom. maa ngi dégg moom Samb di ñu kaañoo sànq. Massa ñu leen di masaw bu baax. ayca ñu ngi lay déglu. waaw ma man dama bëgg participer tuuti rek si ma si mbirum euh, troisième mandat bi. déjà bisimilah ñu ngi lay déglu waaw. man pour ma troisième mandat bi sax du débat. Hmm. lu tax parce que Macky Sall si boppam moom moo ko wax si boppam moom moo ne man. Hmm. maa ngi sama mandat bu njëkk. Hmm. mu ne bu soobee yàlla bu deux mille dix neuf yi sénégalais yi bi ñu ma wóoloo ba dénkaat ma réew mi gis ni sama projet yi dama ko war a égaler. su ma ko bu ñu ma wóoloo ba falaat ma mu ne bii mooy nekk sama dernier mandat mun ma ko wax si gémminam pour man affaire bi du débat sax affaire nekkul sax affaire constitution ak yu kenn moom la concerné moom moo ko wax si làmmiñu boppam kenn saxalu ko lem lu muy wax nee na man maa ngi sama mandat bu njëkk moom Sénégal yi wóoloo ba falaat ma suma deuxième mandat su ma ko defee pare naa ci dem naa bu ma du débat hmm. débat amatu fi amatu fi débat moom si boppam moo wax te bu muy wax saxaluñ ko lem. Hmm. saxaluñ ko lem dafa ne man maa ngi sama premier mandat suma deuxième mandat bi su ñëwee. Hmm. su ma ko defee pare naa ci ni mooy sama dernier mandaa moom moo ko wax mooy las la moo tax sénégalais yi di attardé wu si mbir moo xamante ne nii ki mu concerné si boppam nee na moom pare na ci. mais mais dañu gis aussi waa këram waa këram yi certainement dégg leen ñoom nee nañ Macky Sall mooy seen mais ñooñu pour man ñëw ñu sax jariñoo tontu. Hmm. parce que nekkalu nekkalu fi lu dul seen bopp seen intérêt bopp rek moo leen fi tax a nekk du leneen ñoom xam nañu ñoom Macky Sall bu faluwaatul fii ñoom ils sont foutus en fait. Hmm. seen bopp lañ fi nekkal moo tax ñu jaruñoo tontu. ñun ñooñu concerné wu ñu ñun ñi concerné lu ñu concerné mooy li Macky Sall wax ñun lu ñu itteel mooy li nday mbili li mu wax. mais loolu kay jeex ne pour moom du débat comme lu Sonko wax démb. loolu sax nekkul instant bi nekkul nekkul nekkul occupation sénégalais ñun lu ñu lu ñu war a tal. Mhm. mooy suñu réew mi fu mu toll. réew mi mu toll ñun ñi nga mhm. xamante ne ñoo nekk si bitim réew bi ñu ngi bëgg a dee. suñu salaire day ñëw su suñu salaire day ñëw du ñu sax am ñun lu ñu lekk ñun lépp Sénégal la jëm lépp. Mhm. Sénégal la jëm. da ngay gis kenn koo xamante ne day boot famille lumb famille lumb dëkk bi Sénégal foo dëkk boo dugg. kër boo dugg am na au moins minimum minimum minimum trois à quatre jeunes yu fa nekk xëy ñu gontu. Mm-hmm. amuñu xëy te si trois à quatre jeunes yooyu deux wala trois am nañ métier mënuñu exercer seen métier. Mm-hmm. mais loolu la ñu war a wax loolu la war a wax. am kër yoo xamante ne boo fa duggee li ngay fekk deux à trois personnes yu am ay diplômes soxna ce sont des diplômés mais ils n'arrivent pas à loolu la ñu war a wax. d'accord jërëjëf bi loolu la ñu war a wax. Hmm. loolu suñu priorité. Hmm. nu ñuy def ba ndaw yi ndaw yi am xëy nu ñuy def ba sukkali suñu mbay. Hmm. nu ñuy def ba ba ba am am am am ay industrie loolu la ñu war a xool nu ñu ko lijjantee mais pas ay troisième mandat loolu du débat. d'accord loolu farankulaay na yàgg na lu Macky Sall wax wax na ko ba pare c'est tout. d'accord mbokk mi. waaw ah, dafa mel ne dafa mel ne dem na France la doon woote donc ñu ngi jaajëfal. Euh, doomi réew mi yekk ni nekk France yëpp euh, mon ami Jibi Ndiaye maa ngi lay nuyu euh, kooku sama mbokkum Gossassois la ma nga ci France dégg ngeen mbokk mi moom li mu wax nee na coowul troisième mandat du débat ndax Macky Sall moom moo ko waxaloon boppam dans tous les cas coow léegi mi ngi mi ngi des cobboy parce que waa kër Sall yi dégg li ñu wax ñoom nee nañu Macky mooy doon seen candidat en 2024 opposition bi aussi rawatina waa Askan Wi ñoom démb def nañu conférence de presse Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ak ñañ ca àndal ñëpp ci biir yi ñoom interpellé nañu encore une fois euh, Macky Sall euh, conseillé ko daal mu bañ a mu bañ a euh, am xelu bokk ci jongante yi en deux 2024 dans tous les cas loolu mbokk yi naka ngeen ko gisee ndax jàpp leen ni aussi mën na dugalaat réew mi ci beneen guuta boo xamante ne xëy na du arrangé kenn ban gis-gis ngeen ci am loolu mooy Euh, ñetteelu ponk bi ñaareelu ponk bi wax naa ko sànq muy grève bi nga xamante ne boutiquiers yi ñoom fas nañ ko yéenee grève euh, suba parce que ñoom nee nañ d'accord ñu vraiment ci prix yi euh, gouvernement bi digle pour ñu jaayee ko yenn njëg yi ñu jël mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam Soxna Ndiaye siyaar nañ la. waaw yaaram na nga def waay. sant yàlla bu moo du Makhtar Diaw la encore. ah waaw sëñ Modou na ngeen def yaa ngi en direct ci des a yi waaw ñoo ngi sant bu wér wér alhamdulilah di leen siyaare di leen. fooy fooy wootee bi am na solo trop. fooy wootee. Euh, France. moo du ma wootee waaw daa maa woon di wax ci éleveur pigeon yi. ayca ñu ngi lay déglu. waaw di woo di wax ne macha allah émission bi am na solo suñ koy déglu day mel na sax baa mel ne ñu ngi ci réew mi parce que lii daa am solo. jërëjëf jërëjëf. waaw ndax euh, sori sam réew yu mel nii ñoo lay mën a jegeele ba ngay yëg li nga xam ne mooy réew ma. Mm-hmm. waaw ñuy wax ne li nga xam ne si ne indi nga ko muy ñetti poñ yi. Mm-hmm. benn bi muy troisième mandat bi. Mm-hmm. boobu moom bu fekkonte ne sax euh, sénégalais yi comme àgg nañ fi ñu war a dëgg-dëgg duñ ci wax parce que daa nekk loo xam ne ñun jërul di wax. dañuy seetaan te xam ne jamono dina àgg boo xam ne si ne su boobaa jëf moo cee des bu fekkante ne daa nar a demee neneen. beneen bi ci topp moom mooy Aliou Cissé ñun nan la ñuy jëlee ab tubaab bëgg koo teggi bëgg bëgg a teggi ñun nit ku ñuul ne ñun di sénégalais ne ñun bëgg a teggu tubaab. ah wax dëgg yàlla en tant que loolu man mënu ko accepter même bu fekkonte ne le sénégalais est archi nul waruñoo jël ab tubaab di ko teg en tout cas en plus Aliou Cissé lim ñu indil ñaata entraîneur ñoo fi jaar mosuñu ñu ko indil. walaay walaay loolu de dëgg question que man man question que bëgg-bëgg la. man mhm. réew mi bu ñu tudd réew mi sama yaram bi gis nga li muy dawee moo koy yëg di ci yëg ay frisson mhm. loolu képp koo xam ne sénégalais nga man yaakaar naa danga koy yëg kon nag nu ñuy jëlee ab sénégalais di ko jëndee ah, naan ab tubaab di ko tudd loolu mën naa ni sax mbirum jaam la mhm. kenn du xalaatee noonu noonu baaxul kenn du teggi sa mbokk muy nit ku ñuul en tant que sénégalais di teg tubaab parce que tubaab bi duñ teggi tubaab di teg nit ku ñuul beneen bi ci topp moom mooy euh, troisième point bi dimbali ma. boutiquier yi waaw boutiquier yi war a grève. suñu ñoom wàllu boutiquier yi moom. loolu moom boo bëggee dégg-dëgg problème mu sénégalais la. Ah, de manière générale. Hmm. boutiquier yi ni nguur gi wàññee tegu ko ci yoon waaye boutiquier yi ak sénégalais yi dañuy te ay teg ay prix foo xam si ni te aajuwut fenn man mii di wax ak yow man mii damaa bay ba sama mbay jeex ren gerte mu ngooñ kese la ñu Euh. mais ki nga xam ne moom a doon bayal dafa taxaw ne ma ngooñ mi waaw ren ngooñ dafa manqué dañ koy denc jaay ko quatre mille ko mënut a am daaw ngooñ lu mu doon jar mu ne ma euh, deux ne ko fi a ko kon ngooñ mi jaay ko mhm. mu jeex parce que sénégalais yi dañoo bëgg bénéfice ba mu bari léegi man awuma gerte léegi ci ngooñ mi laay bénéfice laay profito ngooñ mi ay xara koy lekk <laughs> xam na ni sëñ bi du nit te xar yàpp wi dañ koy jaayaat yow mi koy jaay ngooñ mi yow lañu jaayaat yàpp wi bu ñu la jaayee yàpp wi lu cher nga ne yàpp wi dafa cher te yaay jaayee ngooñ lu cher. Hmm. bési bi noonu pepp mi noonu tout ce qui lépp loo xam nit ñi dañ ciy dund yow mi nga xam ne yaa koy bay yow yaay am conscience su man lii bu ma ko jaayee lii dina ma arrangé du ma ci am yenn xaalis yu bari yi mais dinaa ci am li nga xam ne si ne moom mooy li ci war li nga xam ne mooy sama mérite. dañuy wax ne manqué na rek naa profité. Hmm. loolu problème mu sénégalais yi. sunu nguur gi moom ñoom fi ne nii waye dinañ waaye nag seen waye gi ci sénégalais yi lañ ko jëlee parce que sénégalais yi bu ñu woyoon nguur gi daanu woy ndax nguur gi danañ am seenum xel ragal daal xam ne ñii bu ñu defee naka sudut noonu danañ dal suñu kaw d'accord waaye naan waaw man nañ may nañ ma juróom fukk may nañ ma téeméer juróom fukk kon nag diwa baax sama mbokk fee la nekk sama mbokk fii la nekk diwa baax hmm. loolu mooy problème u sénégalais yi d'accord jërëjëf mbokk mi waaw baax na jërëjëf ñu lu bëree bëri jërëjëf vraiment merci beaucoup merci beaucoup di nuyu sénégalais yi nekk France yépp ñu ngi leen di jaajëfal mbokk moomu jërëjëf kàddu yi rafet na dégg ngeen ko ah, li mu wax ci <laughs> sénégalais yi <laughs> ah, doy na waar ah, ñu xaar yeneen mbokk yi ci ñaari numéro yooyu affiché wu à l'écran mbokk yi ñetti ponk lañu indi tey balaay 11h ñu jël suñu invité di Lamine njaay Lamine Ndiaye di postier nekk responsable politique APR bu commune bu Djirda euh, Djirnda nag Djirnda nag mi ngi nekk ci île. Euh, du Saloum moom la ñu war a dalal tey 11h ndax foofa ñoom dañoo am ay jafe-jafe yu métti yoo xamante ne bu weesoo wàllu politique ak yooyu yëpp dinañ ci dikk ak moom à partir de 11h waaye en attendant ñu continuer xëy nañu jël benn mbokk rek régie laataa ñu yëkkati jataay bi ndax 11h daanaka 5 minutes moo ci des bu fekkee am na ku woote bëgg a àddu ci ñetti ponk yi ñu indi ma bamtuwaat ko benn bi mooy. Aliou Cissé mi ñu bëgg a euh, Hervé Renard remplacé ko te yenn sénégalais yi commencé ko ruumandaat ci internet bi loolu naka ngeen ko gisee ndax jàpp leen ne dana euh, daal bokk ci liy démoraliser xëy na Aliou Cissé gone ya mu àndal euh, ndax benn match rek la defagum ci mondial bi jeex a gut waaye xaat fu mu toll nii am na ñuy xalaat daal ne équipe bi dañ ko war a dégg keneen loolu ban jàngat ngeen ci am. ñaareelu poñ bi mooy grève bi nga xamante ne boutiquiers yi ñoom les détaillants boutiquiers yi nekk ci gox goxaat yi ci koñ yi ñoom dañoo fas yéene banque seen loxo. parce que ñoom nee nañu d'accord ñu ci prix yi nga xam ne moom la gouvernement bi di digle pour ñu jaaye ko daal yenn njëkk yi ñu war a jëfandikoo ñoom nee nañu loolee ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg ba tax suba ñu war a dugg ci grève ñetteelu ponk bi mooy coowal troisième mandat coow li ba léegi mi ngi wéy waa kër Macky Sall ñu ngi jàpp fi ñu jàpp opposition bi aussi ñu ngi jàpp fi ñu jàpp loolu naka ngeen ko gisee salaamaaleykum. waaleykum. waaw waaleykum salaam. waaw kooku kan la Socé. waaw sëñ bi naan sunu eh, soose bi ziar nañ la. <laughs> alhamdulilah yàlla na yàlla nangu ziar. naka yitte bi ñu ngi leen di seetaan wax dëgg yàlla di leen souhaité di leen jaajëfal. jërëjëf waaye mbokk mi. dëgg yàlla 2A moom. Hmm. ci kaw ci kanam koy waxee incha allahu rabbi. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. ngi participer ci. développement Sénégal. ndax ci démocratie euh, wax dëgg yàlla ci waxtaan yoo xam ne. dina hmm. amal sénégalais yi ñu mën a sax wax li ñu xam ak lu ñu bëgg. Hmm. ndax ñun wax dëgg yàlla yëpp ñu yombul de. <laughs> ñun. Hmm. non yëpp ñu yombul de. waaw dañoo yàplu. waaw. ndax bu ñu demee bay wax ay troisième mandat hmm. ay ay ay problème de foot gis nga li ma gën a naqari ci àdduna mooy ah hmm. <laughs> Sénégal mooy gis ku doonul dara def ko dara <laughs> Aliou ah, Cissé Aliou Cissé nañ ni ko hmm. non damay ñaan rek dama koy ñaan quoi nañ ni ko affaire de entraîneur lu affaire de guerrier affaire de tactile la gis nga lippi ay Mourinho ñooñu amuñu ras amuñu doole. Mm. déggoo ma de. Mm. ku ci mu naaw mais xool àdduna bi dañ leen soxla. Mm. comme li Macky Sall dañu bëgg def nii rek di sol ay tërë militaire am yooyu di waaxu naan daf ñuy jaay biir bu rëy ay lex yu rëy naan daf ñuy napp. Ah, jël armée bi teg xam nga gis nga. adduna bi moo dépassé loolu. Hmm. adduna bi xam nga fan la toll. Hmm. am na ay joxal jóg. kaa la waxtaanee ko. adduna bi moo toll foofu. ba sa hmm. biir kër say doom. li nga sukk jur sax. da leen war a wax ne kaa leen ñu waxtaanee ko. waxtaan de lu am solo la moom. non kaa leen ñu waxtaanee ko. lépp kër gi neex dañ koy waxtaanee. ndax mag ak rakk sax dañuy xiiroo ŋaayoo xaw a mel ni luy bañante boo sotee rek koo ci sotal rek kër gi naqari na hmm. ndax day jàpp ne da ngaa faral walaay ñu toog waxtaanee ko lu xew mu ne ah man de lii la ma def kii ni ah man de lii laay gis mu ma koy def nen leen warul demee noonu nii la war a demee hmm. waaye ñun dañoo am problème ñàkk toog waxtaan ñun hmm. problème mu forcing la ñu am forcing xam forcing. Hmm. dama am suma benn xarit bu ma doon waxtaanal xam laa ko wax. man ko hmm. Aliou Cissé mii buy dem di indi defet mu ne ma lu ko gis nga bi am na benn journaliste bu ko laa ni ko changement yi. mu ne changement man man naa koy gérer suma bopp kenn du ma ko gérer man ko xoolal nangootul waxtaan ak nit ñi ni ñuy forcing. mi ngi wane ne man maay kilifa gi ñun ñoo bëgg affaire de kilifteef dañuy génn ci mbedd mi reetaan yooyu dugg ci biir kër gi ñàngal ba sunu doom bu ñu fàqee sax duñ leen duñ leen mën a jàpp. ndax ñun dañu dañu dañu dañoo dañoo ñun moo ñu yàq. Hmm, d'accord. ak kilifteef te loolu de il faut ñu dindi ko ba ci président ba ci suuf. di hmm. nga muy wax Macky Sall muy wax. mais man toog ne di ko xool moom laa faral ah. kaay la jërëjëf mbokk mi. waaw maa ngi maa ngi jéggalu dañu war a dalal suñu gan à partir de 11h te daanaka 11h jot na nga baal ñu rek gàttal. bu ko defee waaw mais foog nga may sànni ci wàllu troisième mandat. waaw lenn laay laajte. ban journaliste moo njëkk posé question Macky Sall premier troisième mandat xam ngeen ko. kooku ku mu. xam ngeen ko yéen. ah déedéet man de xaw ma ko kan la. Cheikh Yérim Seck. gis nga ba mu ko defee. waaw ba pare. la pare lañ ko fay mu pare ci wàllu journalisme wàllu chroniqueur. Hmm. pare ci lépp kooku ñoo yàpp troisième mandat. xoolal moo la gën a xam ne bu nee am na. xoolal dina gis Italie wala Paris ñu seen bopp xoolal. di toog ci gaar yi ñu leen di xoolal raay yi di leen dër parce que noonu lañ koy xeexee dañ koy wan ni carrément ràññu ñun ñëpp ñu dee yow nga doonnu gis nga li Charles Taylor waxoon Libéria nañ leen xeex ba mu des benn nit barki yonent bi Macky Sall bu taxawee ni troisième mandat day am nan xoolal dañuy dee ñun yëpp ba mu des moom kase léegi mu gouverner lekk lépp ak njabootam may nañ ko ko. d'accord jërëjëf mbokk mi. waaw merci beaucoup xam naa xam naa nga jégal ñu ko ba beneen yoon rek ñu gën koo yaatal bu ko defee. jaajëf jaajëf jaajëf ñu dalal suñu suñu gan régie jërëjëf mbokk yi woote woon yëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi wootewul aussi doon teewlu émission bi ñu ngi leen di doon commenté aussi yéen ñëpp vraiment euh, jaajëfal nañu leen euh, euh, seen kàddu première partie bi foofu lay yem. deuxième partie bi nag ñu daal di def pause bu ndaw rek dalal suñu gan di Lamine Ndiaye bi nga xamante ne. responsable politique la bu APR nekk ci commune bu Djirnda nekk ci île du Saloum daañu waxtaane nag seen i jafe foofu déjà zone la boo xamante ne pour nga àgg fa rek jafe-jafe la dégg ngeen jamono yi coow li fa jigoon ci pont boo xamante ne fa la élèves yi daan aw euh, daan jàng jàngi daan ci am jafe-jafe yu méttee méttee méttee yooyu yëpp daañu ko waxtaanee ak moom euh, bu ci kanamee donc régie euh, ñu marqué une petite pause doog nag dalal suñu gan à tout à l'heure ñëwaat di leen dalal jàmm ci deuxième partie seen émission seen kaddu ginnaaw bu ñu jógee ci première partie bi ubbil leen ligne bi ngeen joxe seen xalaat ci ponk yi ñuy indi deuxième partie bi nag mbokk yi tey dañu am mbégte dalal ci ki nga xamante ni moom moo di Lamine Ndiaye lamin Ndiaye postier la euh, nekk responsable politique euh, APR euh, bu président de la République Macky Sall. nekk ci commune bu Djirnda Djirnda mi ngi nekk ci île du Saloum yi certainement dinañu gën a xamante tey ak zone boobu di Djirnda euh, daañu waxtaan ak moom euh, jaar-jaaram ci wàllu politique waxtaan ak moom surtout les problème yi nga xamante ne vraiment ñoom waa Djirnda ñu ngi koy ñu ngi koy ñi ngi koy jànkonteel ci wàllu état civil euh, ak yeneen yu ni mel sur le plan politique daañu waxtaan ak ñoom recours bi nga xamante ne dugaloon nañu ko ndax ñoom dañu jàpp ne élection yi passé ñoom ñoo ko gagné ñu dugal recours waaye bu fii euh, mbir mi dafa mel ne euh, daal dafa mujj tàbbi géej loolu yëpp daañu ko waxtaanee ak moom waxtaanee ak moom aussi tolluwaayu réew mi ci ponk yi nga xam ne certainement. dinañu ko aborder euh, ci biir émission bi Alaaji Lamine kontaan nañu vraiment ci ñëw bi ñu ngi lay masawu déjà parce que xam nañ ne sa commune nga jógee ni ki démb pour def si émission bi euh, kontaan nañu ci 2A TV di la gërëm di la sant ci déplacement bi ak disponibilité bi di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi ñuy seetaan laataa ñoo tàmbali waxtaan bi. Euh, merci Socé yow aussi maa ngi lay jaajëfal bu baax wax dëgg yàlla ci émission bi ak opportunité bi ñu bi ñu may. ñu ngi nuyu aussi mbooleem auditeur 2A TV yi. Hmm. di nuyu borom kër gi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla fas yéene janoog àddina bi yëpp. Ah, mm-hmm. pour euh, waxtaan ak ñoom suñu xalaat. Mm-hmm. ci mboolem laaj bu ngeen ñu mën a laaj. d' accord d' accord El Hadj nga nekk aussi responsable politique euh, bu euh, APR ndax mën nga ñu présenter un peu sa bopp pour sénégalais yi gën la gën la gën a xam yow yaay kan. waaw maa ngi tudd lamin Ndiaye. dëkk juddoo dans la commune de Djirnda plus précisément dans le village de ndax waaw maa ngi liggéey aussi nekk un cadre à la poste nekk aussi un responsable de première heure Benno Bokk Yaakaar plus précisément APR ci commune bi ak ci département bi yor fa aussi ay responsabilité waaw wax dëgg yàlla liggéey fa aussi liggéey boo xam ne euh, du lu ñu mën a natable ñëpp xam nañ ko te rafetlu nañ ko hmm. aha euh, léegi tey boo ñu doon présenter commune bi Djirnda déjà ci ban département la bokk. waaw ak lan mooy lan mooy particularité ak Djirnda. waaw Djirnda euh, c'est une zone insulaire boo xam ne mu ngi nekk euh, dans le Gandoul dans l'arrondissement de Niodior euh, dans le département de Foundiougne ñoo ngi bokk aussi ci région de Fatick. d'accord foofu wax dëgg yàlla ay mbaalkat ñoo fa nekk. Hmm. waaw foofu ay mbaalkat ñoo fa nekk. ay nappkat ay ñoo fa nekk. parce que ndox moo ko wër lépp. parce que ay île la d'accord mmh. si il la ci biir gandul la bokk. Mmh. aha d'accord. Mmh. particularité bi mooy loolu euh, napp bi. napp bi foofu on connaît que la pêche mbaal rek lañ xam d'ailleurs soo déggee tey ñuy wax le bassin arachidier. foofu tey maanaam lu dem ci wàllu crevette tey. foofu mooy foofu mooy base am. d'accord c'est dans Djirnda. d'accord économiquement parlant wax dëgg yàlla géej lañ xam. ñuy dugal bokk ci jëmale réew mi kanam réew mi ci kanam waaw ci ci wàllu économie pour dem fa dafa mel ni dafa xaw a jafe de waaw vraiment soo fa bëggoon dem man tey nan laay def fan laay jaar enclave bi métti na enclavement bi métti na lool hmm. foofu moom tey soo fa bëggoon dem da ngay jël euh, da ngay jël oto hmm. soo ñëwee ba ndangaan sambu hmm. euh, après Diofior nga jël gaal dugg dugg dugg. ah da ngay da dem ba croisement Ndiosmone. waaye nga dugg ci biir. nga jël tali bi jëm Diofior. voilà dem Diofior maintenant soo ñëwee Ndangaan Samb c' est à deux heures de à deux heures de temps de Piro. Mm-hmm. et c' est à deux heures de temps de Piro. ah su ma demee ba Ndangaan Samb damay jël gaal. da ngay jël gaal. d' accord gàtt gàtt di daw ñaari waxtu. ah na loolu. ah bon ah waaye ah. <laughs> ah, foofu moom <laughs> euh. dama fa metti na de metti na trop gisoo démb je suis tellement euh, la d'ailleurs fa lañ jógee te fi ñu population bi teg moo ñu ko jaral. parce que aussi dëkk bi dafa toll foo xam ne euh, euh, gars yi dañoo wax ne euh, la responsabilité le leadership. ça s'affirme ça s'incarne. tout à nit ki am na loo xam ne suñ la ko tegee. waroo am waroo am lay. ak foo mën a nekk rek da nga war a vraiment nekk un homme de terrain. pour vraiment liñ la yaakaaree. nga mën a ko aboor te vraiment gis nañ ne aussi bi mbir mi taree ba tar on a voulu parler avec la presse. Mhm. pour ñoom ñu xam ci jafe-jafe yi ñu nekk. Mhm. waaye ñoom aussi ñu xam Djirnda lan la représenter à travers le Sénégal. waaw te loolu addina bi dañ ko war a xam. nit ñi dañ ko war a xam. Mhm. pas parce que nous sommes enclavés rek. ñu bàyyi ñu ñu ñu ñu def ci n'importe quoi. ça peut parce que on a été dans les plus grandes universités du monde. lu nit ñi jàng jàng nañ ko. Mm-hmm. lu nit ñi xam xam nañ ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ci dëkk bi lañ dëkk. Mm-hmm. moo tax nag vraiment ñu saisir antenne bi tey. pour wax ak àddina bi ñu xam par exemple. lan mooy le vrai problème de la commune de Djirnda. c'est important waaw c'est important dinañu ci dugg benn par benn euh, bi ñuy tàmbalee mooy yéen da ngeen di politique. da ngeen bokkoon ci jongante yi génn. mu am résultat yu génn. problème am fa. ba ngeen duggaloon recours. problème bi lan la woon exactement qu'est-ce qui s'est passé. voilà Socé maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal bu baax dalay lay parce que question boobu moom daanaka daf ñuy neex lool ñu tontu ko te yàlla tax. Hmm. parce que dafa am un contexte boo xam ne moo jiitu woon sax loolu. Hmm. par exemple peut-être tout au long de l'émission dinañ ci gën a épanché wu. Hmm. mais dafa am fu ñu jóg fu ñu jóge am fu ñu toll ak fu ñu jëm. ñun depuis mille te hmm. je pèse mes mots bi président Macky Sall nekkee directeur campagne yu président Ablaye Wade ma nekk un jeune étudiant. Hmm. ci laa ko topp. di liggéey di liggéey bi en 2009. Hmm. bi mu génnee le partie ñu topp ko ngir yaakaar. ci la créé woon defe naa dekkal ngor. su ma dekkal ngor ci yoonu <laughs> yokkute. bi ci son plan émergent ñun ñëpp ci gannaawam lañ nekkoon. tapis dans l'ombre nag di liggéey liggéey boo xam ne kenn xamuñu waaye lu fa am ci résultat. ñoom sax xam nañu seenu te je vais en venir. ñu nekk ci di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba aux élections de 2012. ñu jël réew mi. waaw. ànd nag ak conviction ndax ñun lépp lu ñuy def yàllaa ñu gënal suñu bakkan. Mhm. conviction moo ñuy booleeg nit. ñu dem ci dem ci dem ci dem ci. ba aux élections municipales de cette année-ci en 2019 mhm. boobu référendum bi jàll na mhm. hmm? bu 2016 la question que l'on doit se mooy mhm. kan moo gañoon ce ce référendum parce que le maire qui était mu ngi nekkoon au grand parti bu Malick Gakou bu Malick Gakou d'accord dem def une campagne avec ses moyens pour que référendum bi daanu Nous, on a soutenu le oui, gagné très largement. On l'a battu à plate couture. dama lay expliquer fi ñu jógee rek. Mhm. maanaam li li mhm. waral problème bi. su fekkee c'est important c'est important waaw. bi loolu amee contexte historique bi c'est important. contexte historique bi. Mhm. bi loolu amee ñu dem ba Malick Gakou investir ko ci députation 2017 yi. en tant que responsable avec mes maigres moyens ma gagné waat ko à plate couture xañ ko députation boobu. bi mu xamee ne amatul fu mu jëm. Hmm. aux élections de 2019 il est tale voir le président Macky Sall à Kaolack. Hmm. ñëw ne je suis venu soutenir le président Macky Sall. fekk hmm. ñun on a été les responsables de premières heures. en politique. ñëpp xam nañ ne la soustraction n'existe pas en politique. loolu ñëpp xam nañ ko. waaye nag nit ki soo ko fekkee muy liggéey. la gën a rafet su ñëwee. responsable yi nañ ko jox gëddam yow nga jox ko gëddam ngeen dajale seeni loxo liggéey. Mhm. deful loolu ñu dem nag ba élection yi ren yi le lobby tapis dans l'ombre du département de Foundiougne. Mhm. man je masse pas mes mots. ah bon yaakaar ni y a un lobby bu fa. y a un lobby. ah oui te loolu il faut le dire. d'accord ñu ñëw sur quel critères lañ mën a basé pour jox ko le récépissé du parti. moom la maire bi nga xam ne àndutoon ak yéen nekk ci Malick Gakou. waaw transhumé fekk ñu fekk ma ci parti bi depuis 2017. d'accord moom gars yi jox ko récépissé bi. ah bon waaw te loolu. Hmm. ba fi ma toog tey di wax. Hmm. dama gëm ni c'est pas l'avis du président Macky Sall c'est les responsables du département de Foundiougne ñoo ko def mais comme man il n'y point de divinité excepté Allah. Hmm. lu waay yaakaar yàlla nga yaakaar. soo se ma dem ànd ak samay mbokk. ànd ak waa diaspora bi te maa ngi leen di nuyu du passage ànd ak waa commune de Djirnda soutien Lamine Ndiaye dem wuti un récépissé parallèle maa ngi sant l' inspecteur des impôts Mor John mhm. bi ma permettre loolu parce que su aurait été lui hmm. du ma du ma dem du ma am bokk ci élection yi waaw mu jox ma récépissé boobu jàppale ma ci lépp ñu dem élection ma gagné Badara Diom à plate couture gagné ko très largement mais aux environs de 19 heures il y avait une différence de 150 voix. ok dëkk bu mu dëkk Diamniadio te mu am fa ay mbokk am fa base li xel war a mën a xalaat mooy xel du dugg àjjana les ex les experts en politique duñu ils me démentiront pas. Hmm. mu am bureau de vote boo xam ne j'ai zéro voix là-bas amul bulletin nul. Mm. amul dara il a 100 pour cent la ba l'autre bi mu am fa quatre voix ce qui m'étonne mm. c'est pas le bureau que j'ai quatre voix avec des bulletin nuls mm. mais bureau bi nga xam ne zéro voix la fa am mu am fa 100 pour cent ci li gën a garaaw mooy ci bureau boobu le sous-préfet de larondissement de Niodior nga xam ne par exemple moo ñu boot coiffé ñu ba ma déggee il y a des malversations qui se passent dans ce bureau d'ailleurs li indi problème yi ma yónni fa sama plénipotentiaire. waaye di de Doudou Sagne. maa ngi nuyu équipe bu baax ak équipe bi ma àndal. un plénipotentiaire kay xanaa loo gàtt gàtt xam-xam xam nga ne am na droit. ci carte bu mu yor. Mhm. pour dox ci mandat yëpp ci circonscription électorale bi. def visiter neuf bureaux de vote yëpp. su préfet doo ko ko bañal loolu. à notre grande surprise bi mu ñëwee Diamniadio. Hmm. le maire joxe instruction ñu barricade débarcadère bi. ah bon dàqu Doudou. sur parce qu'il savait que ce qui se passe là-bas c'est pas normal. mais ñoom je veux dire ñoom si si yan base lañ lañ barricadé ne ko li nga bëgg doo ko def. mais en collaboration avec ñoom parce que xam nañ ne duudu su duggoon foofu tey. Hmm. li ñuy def dafay fay. mais le sous-préfet mi nga xam ne moom moo war a def contrôle de légalité. ñu woo ko téléphone fa xam na ne kooku bu fekkee plénipotentiaire la am na droit dugg foofu. ñu woo ko téléphone. Hmm. mu baal ma ci kaddu gi n'a pas pipé un seul mot. ah après. dëkk ba naroon bastonné Doudou Doudou ñibbi jiir na j'ai interpellé lu gouverneur. de la région de Fatick de la région de Fatick. te je pèse mes mots j'ai interpellé le préfet de Foundiougne kenn dégluwu ma Doudou ñibbi bi Doudou ñibbee le lendemain y avait un décès jiir Djirnda mm-hmm. dëkk boobu ñëw Djirnda pour jaale ji waa Djirnda li tex ay xale sax lañ. xale yi dàq la ñu ñibbi lii moo indi la tension politique de la commune de Djirnda d'accord qui ne rime même pas avec mm. ma personnalité et mon engagement ndax ku ma xam xam nga ne man mm-hmm. ci jàmm laay dox mm. ci convaincre nit ñi laay dox bi loolu amee aussi il a fait chose plus grave mooy le sous-préfet mm. xam nga dérogation am na am na am na ci ci ci ci ci ci code électoral. Mhm. on n'en disconvient pas. Mhm. mais mënuma concevoir na bi am presque plus de sept cent votants mille cinq cent votants pardon astafurlah. Mhm. mille cinq cent votants. am trois bureaux de vote. nga dem à Diamniadio avec un bureau de cinq cent électeurs et un bureau de de cent quinze votants nga yóbbu dérogation jusqu'à vingt deux vingt heures de la nuit. dañu continuer di voter ba vingt heures. ba vingt heures de la nuit. te loolu mu waral sama recours. d'accord jusqu'à minuit bureau boobu mu ngi doon fonctionner. ah bon waaye te li li gën li ñu gën a jaaxal voies yi leen rawee woon voies yi lañ pallier à Diamniadio. Mhm. ma interjecté un recours pour le dire que bureau buy dox ba minuit bokkatul ci code électoral et je me suis autodéclaré. Euh, mhm. gagnant des résultats te loolu mhm. am. te ku xool ne élection yi demee nga xam ne ba dara mun moo tenir. d'accord. d' accord léegi léegi man li ma bëgg laaj mooy ñaari question la benn bi mooy d' abord récépissé bi ak li nga li nga yàgg ci parti bi comme ni nga ko waxee yëpp APR naka lañ la fi mën a tëbee jox ko koo xamante ne c'est un transhumant mooy mooy première question bi deuxième question bi sous-préfet bi mu defee loolu interpellé nga gouverneur interpellé préfet ñoom lan moo nekkoon seen élément de réponse par rapport ak situation bi ba ma leen interpellé hmm. d'ailleurs le de Foundiougne n'a même pas voulu me recevoir honnêtement. xanaa da ngeen am ay antécédents wala qu'est-ce qui se ak kenn. mais xëy na ñoom li leen jaaxal. le hmm. maire il est tapé à Foundiougne xamul Djirnda du fa ñëw. Hmm. Foundiougne la looji ak ñoom. je sais pas ce qui les hmm. wax dëgg yàlla damay wax tax. par exemple li leen di jaaxal dafa dañuy gis maanaam un jeune émergent boo xam ne gëmul lenn lu dul localité am benn naqar boo xam ne aussi euh, dafa am lu mu bëgg a def ci zone bu mu dëkk. te muy dëgg ndax loolu looloo war ku nekk ak fi nga judd loolu moo la war. te dafa am collaboration boo xam ne aussi man nekkuma ci collaboration boobu. Mhm. man je suis pas dans dans ce deal politique. quoi qu'on puisse dire moo tax aussi sama sama ascension politique xaw a yéex ndax am na loo xam ne gëmuma ko. Mhm. te kenn duma ko def loo ba ma interpellé le pré le le le le gouverneur. Mhm. il a appelé le sous-préfet de de de de de la de l'arrondissement de Nioro woo na ko. woowaat na ma téléphone aussi ni ma pourtant woo naa ko ma ne ko waxuma la ne woo nga Mhm. mais réaction bi dafa yéex. oui te wax dëgg yàlla la fa am waroon naa mën a ñàkk te loolu am li looloo loolu waral li xew. mais mais mais recours bi est que jot na dem ba cour d'appel. par exemple recours bi yóbbu nañ ko ba léegi lan mooy lan mooy résultat bi finalement. recours bi yóbbu nañ ko ba cour d'appel. Hmm. j'en ai parlé avec mon avocat. Hmm. mais bi bépp mooy wax ak yow nii. on n'a reçu aucune requête bu ñu woon ne ndax recours bi jàpp na wala jàpp te recours bi dafa waroon jàpp. Ah, mais mais mais mais est-ce que c'est normal même boobu yépp en attendant est-ce que le maire a été a été installé. installé nañ ko. te mais naka lañ naka lañ ko mën a installé alors que recours bi kenn vidé gu ko. mais xam nga ils ont ils dans l'acte R9. oui code électoral. dañu wax ne maanaam maire bu bu bu gagné provisoirement ay résultats am mhm. ko en attendant le loolu la wax. installation provisoire quoi. provisoire mais est bu ngeen caaxaan ne du nekk finalement installation définitive. mais loolu c'est une façon d'installer te ba ba bi mooy wax ak yow nii jotuñu dara. d' accord jotuñu tous. d' accord léegi léegi laaj laaj bu njëkk bi mooy ñoom les responsables politiques du département de Foundiougne naka la ñu doon mën a tëbee yow ak li nga yàggee ci parti bi jox keneen koo xamante ne aussi moom daf leen rejoindre bokkutoon ak yéen Malick Gakou la àndaloon mu démissionné ñëw fekk si leen ci parti bi ñu tëb leen yéen jox ko loolu pourquoi. mooy mooy li ma la expliqué rek soose mooy ñoom nit ñi dafa am lu leen di lié dafa am exemple. ñun xam nañu dëkk bi di doxee. Mm-hmm. te maanaam euh, ci plateau bi soo ci soo ci cité tur. Mm-hmm. dafay am lu ñuy yaakaar. d'accord mais je di dit et je le redis daal responsables qui sont dans le département de Foundiougne dimbalu ñu président Macky Sall. parce que guddi may wax ak yow nii. Mm-hmm. koo xam ne dafa gagné élection ak mbooloo bi ñu drainé ren ci élection ci ren gii. ku nekk xam nga ne. gëj na ci coordination député la muy saat député mbooloo mi am ren tey engouement boobu dëgg boobu ak ngëm-ngëm googu. Hmm. mos am ci département de Foundiougne. d'accord te jàmbu xeeb bi moo ko waraloon te ñoom xam nañ loolu. Hmm. moo tax nag suñ bëggoon dimbale président Macky Sall waroon nañ mën a situer le responsabilité hmm. ku nekk nga jox ko lim lool parce que instant bi nii Macky Sall ñun ñooy chance am mais Macky Sall du sama chance parce que defaluma dara. defaluma dara il ne m'a pas responsabilisé. suñu dëkk yi suñu école yi baaxul. waaye loolu dinañ ci ñëw. voilà <laughs> dinañ ci ñëw. léegi léegi léegi euh, est-ce que Macky Sall boobu nga wax aussi euh, après élection yi euh, recevoir na les responsables politique de Gossas Fatick Foundiougne ak yooyu est-ce que aussi yéen tamit yëkkati ngeen seen kàddu vraiment ba moom mun mu mun ko dégg pour nag mu mën a trancher aussi. il nous a reçu à il nous a reçu à Fatick. Mm-hmm. avec les l'ensemble des j'y wax dëgg yàlla jour boobu foogoon naa ne duñ fi ne duñ nekk ci situation bi tey. Hmm. parce que kaddu kilifa la yëkkati keroog la mu waxoon ñun ñëpp dégg nañ ko. pourquoi nag loolu antuwul. Hmm. jaaxal na ma. comprendre leen ba léegi. comprendre ñu parce que il avait pris des décisions en disant que dinaa rectifier le tir. Hmm. parce que am na ñoo xam ne ils n'ont pas mouillé le te man wax dëgg yàlla su ñu waxee dëgg te yàlla tax. Hmm. lu ne defal naa ko président Macky Sall. lu ñuy natable dinañ xam ne la politik ak lu ñu mën a wax. Hmm. dafa ànd ak éthique ak déontologie. nit ñu bëri dañoo yaakaar ne maanaam politique li tax tere bi soof léegi te naqari nga baal ma ci kaddu yi. Hmm. dañ foog ne ku koy def rek. da koy def pour se remplir les ah, mais am na ñoo xam ne dañ koy def ak. conviction ah, ak gëm loolu moo ñu boole ak moom mais wax dëgg yàlla affaire yi soose. Mm-hmm. mënatul demee nu mu doon demee ñun kili ay kilifa lañu am base bu wér peng lañ am boo xam ne kenn amu ko ci département bi. Mm-hmm. amut mm-hmm. te si vous voyez les images. li nga xam ne li may wax dëgg la. mbooloo boo xam ne kenn xamut nu mu toll. moo tax nag on a purement décidé de geler nos activités toog. ah bon oui ah waay déedéet waay Lamine ah, tamit ah dañoo jël suñu activité toog. Hmm? te ñoo ñu xam nañ ko. mais est-ce que doo def demande d'audience nga yóbbu ko président de la république mu Macky Sall recevoir. lu ne def nañ ko soose lu ne def nañ ko. yéen lu ne def nañ ko donc toog ak moom kay warul jafe. ànd naag moom xam nga nu ma doon wooyee. Hmm. ba ma nekkee fac. Hmm. il m'appelait le petit Lamine. moom le président Macky personne. il m'appelait le petit Lamine. mais xam nga ñun dañoo nekk ay nit ñoo xam ne on a choisi la modestie. loolu lañ choisir mais man ba may ànd ak Macky mun naa waat ci yàlla ne peut-être il y avait les Mbaye Ndiaye qui étaient là. Mm. avec les Cissé les les mm. Cissé Lo. Mm. c'était au tout début. c'était tout début très jeune étudiant. kon suñ toogee ba ma am ngëm-ngëm gëm gëmloo nit ñi ne ñoomin kay. ne mbir mi président Macky Sall malgré nag il a fait des réalisations la ba wax dëgg yàlla man kenn mënul fëkk. ma fëkk jëfu jàmbur. waaye nag l'employabilité de la jeunesse. l'érosion côtière bu ñuy sonal ah. Mhm. ma ñëw gëmloo ko nit ñi su fekkoonte ne maanaam li may wax ni gëm woon président Macky Sall j'en serais pas aujourd'hui parce que dañ ma tëj kaso ngir moom. ah bon tëj samay mbokk def loolu ma lu ne te man ba ma ñëw ci laa door a gëm idéologie président Macky Sall kon nag su fekkee ne li ma koy defal gisu ko. Mhm. mais ma taxaw. parce que lu jëmul ci kanam baaxul. oui mais mais mais est-ce que aussi en tant que responsable politique am envergure bi nga am jirnda est-ce que aussi vraiment toog ak moom aussi war na jafe est-ce que est-ce que jéem nga ko rencontrer moom en personne pour ngeen waxtaane mbir mi. su desoon pour président Macky Sall kese. Hmm. xam naa ne Macky bëgg na ko koy liggéeyal mais maanaam nit ñi ñoo soxor. intermédiaire yi daal intermédiaire yi est-ce que lii ñoo soxor. l'entourage l'entourage te gis nga euh, Olof Ndiaye dafa ne. Hmm. Euh, soo du ma topp diw hmm. fi ngeen jëm dafa sorul mais du ma genre boobu. mais à Fatick à Fatick a beaucoup de responsables politiques yu jege lool Macky Sall. mais daf a Matar Ba Mbañ euh, l'autre là. Euh, Mbagnick mi ngi fa Cheikh Kandé mi ngi fa ñoo ñëpp nan moo tax ñoom mënuñu jël problème laa réglé ko seen bopp. mais mais mais peut-être nit ñi dañuy xeeb nit. dañ la xeeb quoi. nit ñi dañuy xeeb nit. te wax dëgg yàlla ku ma xeeb xam nga ne xam nga ne ku ma xeeb soose. Mm. ci politique fi mu toll nii dans le département de mm. mais tu te parce que ku dem élection. Mm. nga xool ci circon circonscription électorale commune Djirnda man j'ai pris gagné élection yi ñu ñu todd sama loxo. ma jël deuxième ak onze con onze conseils municipaux ci mairie Djirnda bi. Hmm. xam nga ne man du ma cuune. te président Macky xam na ne duma ma cuune. Hmm. te fu mu wootee man dem naa fekk ji ko la preuve année que yow yow seede nga ci. Hmm. nga baal ma. parce que dem bi ma woowee à vingt heures. boobu nee maa ngi à Fambine. ci dëkk bi nga xam ne pont boobu moo def. waaw mooy pont bi ñu gis fan yi ci internet maa ngi woon foofu avec les Mansour avec les Samba Diobène. Hmm. ak ñeneen ak ñeneen on était là-bas. d'accord ma xëy ñëw fii te ba léegi lu nekkul jëlee samay activité hmm. toog kenn déggaguma ci leneen waaye nag lu ëpp tuur. mais jël boobu noonu est-ce que aussi sa base. certainement bu ngeen continuer ci lance bi duñ la wax carrément nga bàyyi Macky Sall dugg ci feneen. mais fi fa lañ jëm. ah bon fa lañ jëm honnêtement ah, fa lañ jëm mais Macky soxla la leen yéen gaa yi ah parce que dégg nga entourage am bi ñu ngi ko bëgg a nga nar a def. fa lañ jëm maanaam suñ toogee te maanaam rétablir ñu ci suñu droit. Hmm. fa lañ jëm parce que ñun aussi nit ki ak koo mën a doon tuyaañ famille. Hmm. Hmm? da nga am ay kilifa. base politique base politique bi door a ñëw. te ñun ku xool nu ñuy dérouler. nga xam ne du ñu def dara loo xam ne kilifa yi waxuñ ñu ko man nag fu bind mën a jaar. Hmm. pour mu accéder au def naa ko. ah bon wallaahi. def sans réponse sans réponse fu ma xam aussi kilifa boo xam ne jege na ko ci répondant yi dem naa foofu. waaw ah, mais Lamine seen waaj yi aussi est-ce que jëluñ ko en otage aussi. est-ce qu'il n'est pas il n'est pas pris en otage. parce que bu fekkee yéen ñi nga xamante ne yéen nekk nekkoon ak moom depuis Dekkal Ngor Dekkal Ngor c'est pas pour rien ma wax ko parce loolu c'était tout début. Hmm? boobu la Macky Sall commencé boobu ba léegi ngeen na ci moom te mënu leen ko gis. mënuñ ko gis. à part l'audience de Fatick. mënuñ ko gis soo demee ba bëgg a bëgg a bëgg a beneen corps jóge fële boucher la lu tur doo ko gis doo gis ku ko jege. Hmm. te li wër te wër mooy wax dëgg yàlla on a fait l'impossible pour aider le président Macky Sall. dans dans son œuvre honnêtement te li ma lay wax nii ñëpp xam nañ ko. xam nga yow ku topp président Macky wax dëgg yàlla de premier heures du une du ay privilège ci dara ci ñi nga àndal ci say jigéen amu leen financement amu leen dara te yow nga ngay décarcassé wu. pour gëm gëmloon nit ñi ne politique du luñ du ko foog. Mhm. kooku gëm nga idéologie président Macky Sall. ñu dem dem ba ñu tëj la 38 personnes ñu jàpp ñu. lan moo xewoon lan ngeen defoon bañ jàppoon. mooy xam nga bi bi bi gars yi ñëwee installé ah. le maire par la force. Ah, bi coow li amee noonu bi coow li amee. Ah. dañoo ñëw àjjana sans aucune preuve. ñëw fekk ma chez moi takk ma yóbbu boole ci juróom 38 personnes. ah bon yóbbu ñu dans des conditions inhumaines. dafa amoon ay affrontement foofu wala lan. ay affrontement yu métti. dafa amoon ay blessé ci suñu côté. d'accord amoon na ay blessé suñu côté. mais xam nga sénégalais aussi nit ki dafa am loo xam ne homme xo homme xol du homme. bi ñu koy mm, bës. Mm, mm. am na loo xam ne soo ko defee nit ki. waaw attends-toi à une injustice la woon pour yéen. injustice la woon. d'accord parce que ñun bi ñu xàññee récépissé bi. ak tous les moins de bord parti. dañoo dem ak suñu maigre moyen. Hmm. gagné élection yi. la gënoon ñu xam ne comme on a gagné les élections ñu investir ñu. Hmm. démocratiquement. mais nag dañ ñu tooñ ba pare. Hmm. teg ñu loo xam ne du suñu image. parce que wax nañ ne Lamine Ndiaye ak entourage ñoom ñoo lakk état civil lu jir na ah peut-être on va en venir. oui. le dossier est en justice nag. dossier bi baa ci yoon. est-ce que mu ngi avancé. mu ngi avancé. parce que wax dëgg yàlla on a pris un brillant avocat parce que man dama ne man xaw ma fenn fu dul jër la foofu mooy sama titre foncier. Hmm. falaa fa am une famille. falaa am lépp au-delà de la politique. dafa war a am des relations concomitantes yoo xam ne. Hmm. dafa war a dajale nit ñi. mais nit ki nag soo toogee ak fi àdduna bi toll tey nga teg kon ndodd bu toll noonu. dafa hmm. war a laver image am. d'accord loolu dinañ ciy ñëwaat donc mbokk yi je rappelle que tey Lamine Ndiaye moom la ñu dalal responsable politique euh, APR dans la commune de Djirnda Djirnda mi ngi nekk ci île du Saloum sànq dégg ngeen ko muy wax Diamniadio mais Diamniadio boobu bokkul ak Diamniadio bi euh, na ngeen ko na ngeen ko xamee noonu Lamine euh, postier nga aussi certainement situation post certainement dinañ ci ñëw mais nañ ñëw léegi ci jafe-jafe Djirnda yi déjà déjà dem fa yombul naka ngeen di naka ngeen di dundee loolu vraiment dugg ci gaal daw pendant deux heures fenn foofu les infrastructures de base aussi comment ça se passe. est que jënd tey li moo waroon am lépp tey ci gouvernance su Macky Sall mi ngi koy am. vraiment métti na lool. métti na lool. li ñu gën a métti mooy enclavement bi nga xam ne am na dans les îles d'abord. boo xam ne par exemple yow dëkk fa kese kese kese kese kese. moo tax yow maanaam yow doo mën a yëg loolu. mais demander au ministre des infrastructures ba fa ñëw démb. Mm. Hmm? soo ko xoolee sax nga xam ne kii mënatul il est très fatigué. <laughs> parce que tàmmul coono boobu. tàmmu ko te loolu lañ ci jublu woon démb yóbbu nañ ko ba ci hmm. pont pont bi nga xam ne moo indi jé jéeyo bii. Hmm. yóbbu nañ ko fi élèves yi doon aw fan yële passé ba waaw. mais bi mu fa ñëwee. en regardant son image rek. da nga xam ne kii nii xam ne là ça va pas. là ça va pas. alors que yéen ci jafe-jafe yéen ngeen dëkk. au tool lañ dëkk tous les jours. quotidiennement yéen a ngi ci loolu. soo ñëwee ci les infrastructures de base. les postes de santé. ñun ñoo koy tabaxal suñuy bopp. Ah avec la diaspora am na benn association peut-être je citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité. Mm. mais ñu ñoo koy tabaxal suñu bopp ak suñu coti suñuy propre cotisation te je pèse mes mots. Mm. gisuñ ci ndimbalu benn état. ah mais saa yi loolu doy na waar di. wallaahi 2012 Macky Sall faloo ba léegi. ba léegi. te li may wax nii ku ma weddi na ñu toog ci plateau bi. gisuñ ci ndimbalu benn état maire bi defu ca un gisuñu ko. est-ce que ñoom ñu ngi fay ñëw sax d'abord d'abord ci ci ci d'abord ku xam ne ñëw foofu ni mu est-ce que ñoom ñu ngi ñëw foofu. mais yow maire bi dëkkul ji dëkkul naa la commune maire bi fu ñu la am logement fu ñu la ah, tamit mais ku mel noonu duñ koy fale nag. il peut a fale koo xamante ne dëkkul ci commune bi du fa fanaan du fa yeew. ba démb muy ñëw. Hmm. su fekkente ne le ministre seetlu na ko mais fu ñu la fu ñu la jëlee la jëlee gaal ñëw. mais lan moo ko teree dëkk biir jënda. mais bëgg ko dafa amul kër wala dafa amul fa amu fa kër amu fa pantare te li may wax nii du saboté yàlla xam ne du ma discrédité nit mais amu fa pantere amu fa néeg il hmm. habite fu Foundiougne li ñuy dund ñoo koy dundal suñu bopp moo tax nag maanaam suñu destiné dañ ko bëgg a jëlal en main hmm. nga xam ne yow jigéen buy matu ci biir gaal à ce vingt et unième siècle ah bon jiir na rek nga koy fekk léegi matu ci biir gaal biir gaal jiir na nga koy fekk commune jiir na nga koy fekk léegi élève buy jàngi ça c'est incroyable di patauger ci biir ndox jirnda la am léegi à ce vingt et unième siècle mënatoo ko gis fenn amatul parce que pont yi ñun on ne demande rien jirnda c' est une petite île pont bu gën a yaatu c'est c'est c'est cent mètres ou cent cinquante à part le pont de Fambine bu mm. nekk un kilomètre cinq cent cinquante huit ñi des yëpp ay cent mètres ngay gis ay ay ay ay quatre vingt mètres mm. te mu mënu ci defar dara suñ ñëwee dañuy defar ay pont ay pont bant mm. te nous habitons dans le Sénégal suñu tali pont en ciment à la war a doon. oui oui commune yi am ay patente. pourquoi pas dëkk bi dox parce que tey pont à boo defar. Hmm. nanga nga na na nga xam ne jakarta dinañ daw. Hmm. oto yi aussi dinañ oto yi dinañ daw charrette dinañ daw suñu commune yi am ay ressources. parce que pont bi tey ak lu ñu mën a wax la responsabilité incombe au hmm. parce que yow pont boo xam ne yow depuis 2002 le maire il est là-bas. 2002 2002 ba léegi il a fait 20 ans aujourd'hui cette année-ci nga am pont boo xam ni ça fait pas 150 mètres est ce que yow chaque année soo defoon 5 millions ci pont bi est ce que est ce que problème bi dina am. pont bi c'est toujours en bois. c'est en bois mais li mu nekk nekk en bois munoo sukkandiku ci li président Macky Sall di liggéey chaque année tu as un budget énorme mm. tu as des fonds de dotation et des fonds de concours énormes kon nag suñu waxante dëgg te yàlla tax maire bi liggéeyul. te dimbalul président Macky te loolu nag mënatuñ ko seetaan te li tax mënatuñ ko seetaan. xoolal li xew jir na seetaane si inimaginable nit ñoo xam ne dañuy xeex suba ba vingt heures de la nuit nga xam ne lañuy xeex. Mm. c'est pour leur leur propre. Mm. intérêt mais xeexuñu pour nit. su ma su ma la déggee dafa mel ni daal état bi daanaka dafa yëgul ni sax jëndam mi ngi exister parce que déjà bi ñu fa ñëw ñëw bi metti na koo xamante ne ci gaal nga yéeg pendant deux heures de temps pont yi c'est en mais. jigéen ñi matu sànq da nga wax lu lu daw yaram naka la ñu mën a teg eggee ci dans ce Sénégal là ay jigéen ñi matu ci gaaw aussi loolu dafa doy waar la mit soo se gis nga biñ ma biñ ma libéré le 23 mars 2022 ma jóge ci makku Fatick bi gis nga yave un bain de foule énorme hmm. bu ñu bu ñu accueillir mais li ma lay wax nii su ma koy wax damay am de chairs de poule gis nga bi ñu ñëwee bi gaal gi di kose hmm. dafa am un ami bu ma seeree ne ma lami bul jooy yaa ngi dégg hmm. ndeketoo image bi ma gis moom bàyyiwu ci xel d'accord li ma lay wax nii bàyyiwu ci xel ma ne ko ma nami xoolal xool bi xoolal ci biir gaal bële ma ne gestul nga xool ci biir gaal gële boobu y avait une femme bu doon am doom ci biir gaal parce que xam nga c'est comme c'est un archipel li ma lay wax nii daf lu ñuy dund la mais ça c'est incroyable. xam nga ngay wax ni moom saay vraiment. xam nga archipel la. gaal gi mu ngi jóge Maya. comme Maya. Hmm. poste de santé bu ñu équipé la amul sage-femme amul dara. mais pour loolu kay kon de poste de santé. loolu laal la wax maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu de passage. Hmm. jigéen bi fa la jóge pour nag mën a ñëw ci poste de santé jël bi nga xam ne waa jël na ñoo koy defar. seen poste de santé yéen a ko defaral seen ñoo koy defar te li ma lay wax ni kii yaa ngi ni ñoo koy defar. interpellé bu la neex ñun ñoo koy defar. te Doudou Saaj moo nekk kii ramassé fo fonds yi ki nekkoon sama directeur de campagne. Hmm. ñoo koy liggéey la diaspora may ñu si may ñu suñu ay lal yoo xam ne ñoo ko équipé suñu bopp gisuñu état gisuñu kenn te pourtant les autorités yéeg nañ ko parce que si le président Macky Sall n'est pas au courant. Hmm. mais le sous-préfet de l'arrondissement de Niodior ah en principe il doit en être principe, bu ko yëgee le préfet doit être au courant. il est au courant. préfet bu ko yëgee gouverneur doit être au courant. c'est <laughs> parce que loolu mooy organi organigramme. moo tax nag ngis nga mbir mi. Hmm. dafa métti nu mu nekkee rek lañ koy waxee ñëwuñu fi pour xas kenn. Hmm. mais nag li ñuy daj moom la ñuy génne dañ koy wax jigéen boobu maa ko tiim muy matu ci biir gaal sama rongo ji daanu ci sama dënn. copain bi ne ma dafa foog ne peut-être. Hmm. Euh, prison bi moo ma métti wala leneen. Hmm. man ne ko déedéet man góor la. Hmm. man lii rek jar na ma jar na jar na jar na de. parce que xam naa ne ci politique la bokk. xam naa on a réussi une chose maanaam on a éveillé les wan nañ nit ñi ne. maanaam judo au fond fin du Sénégal taxul nga ñàkk am gëm-gëm amul fen parce que ñoo jàngandoo ci yenn école yi. ñoo defandoo lépp ëpp ñu xam-xam ana lan moo tax ñu mën a am ñu mën a am sa complexe. ne man jiir na laa jóge fa laa dëkk. Mm. fa laa juddoo amul fet mm. parce que lu ñu mën a doon tey moo ñu ko defal. tout à ma ne ko déedéet cet emprisonnement c'est derrière mois parce que defuma nit dara yéene defuma nit dara yàquma saagawuma waxuma nit dara ci démocratie laa ko def. Mm. ñu tooñ ma fekk sama dëkk yóbbu ma waaye maa ne xoolal image bële. mais ndeysaan image bu triste waa ji daf ma daf ma kot ndax da doon jooy aussi. ba loolu neexut a gis kon nag. comme responsable du ñu dimbale responsable de base ñun comme ni ñu ko defee ci pont famille bi on parle directement au président Macky Sall mu ñëw au chevet de cette population boo xam ne bu lépp jaxasoo ñu ñoo ko ci génne parce que si on me taxe d'opposant c'est c'est c'est c'est mal mal mal informer la la, la population hiérarchique mm. parce que yow soo xoolee tey jirnda ba ci législative yi mujje nañ xool image yi Djirnda, la commune de Djirnda a pris premier dans le département avec 91%. te su jeexee golo bay baa bu mu dundee maire bi nga xam ne dëkku fi du def dara ñu ne c'est lui kii travaille kon nag man lan laa ci nekk ba tax ñu may xeeb. moo tax ma ne la man gelé naa samay activité dans le Benno en attendant la réaction du président Macky Sall bu amul benn intermédiaire oui mais au-delà de la réaction politique man c'est que li nga fi wax nii ci ci image maa ngi toog fii di ko imaginer ay jigéen ñuy matu ci gaal élèves yi bu ñuy jàngi ci ay pont en bois la ñuy dox ndox mi loolu sa waay loolu loolu moo ëpp solo. c'est-à-dire bi lan lay xaar pour vraiment solutionner ces problèmes là. moo tax nañu leen di woo. parce que ah. soo xoolee ils sont venus à li ngay wax nii ça ne date pas d'aujourd'hui. dafa yàgg. Ah. depuis ñu ngi koy dund parce que pont Famine bi. coow li mu ngi door am avec les sociaux. oui mais da ngay xool. yaa ngi ñeenti loolu 87 que les populations de Fambine ont ont érigé ce pont avec leurs maigres moyens kon su dem ba nga nekk maire ñëw commencé di am un cent et quelques di am des dotations de soixante et quelques millions wax dëgg yàlla neexul ba neexul mais si l'État ne réagit pas mais yow béy ci sa weewu tànk tu peux faire quelque chose mais xam nga nit ñi Sénégal léegi dañoo am habitude. soo gisee dëgg wax ko ñu ne ko kii dafa bañ nit. mais ànd ak Macky Sall te réew koo wax dëgg. mais loolu la au contraire yéen ñi ànd ak Macky Sall kay yéen ko war gën a wax dëgg pour dañ ko war a dimbale. c'est quoi le problème. parce que tamit ci réew mi ngeen bokk ah. Mm-hmm. toll nañ foo xamante moom askan bi boo jógul nag dóor ci table bi yëkkati sa kàddu kenn du la faale malheureusement. Mm-hmm. foofu lañ toll alors que loolu mënoon na ñàkk. Mm-hmm. mënoon na ñàkk mais ces problèmes là santé bi certainement éducation bi aussi noonu lay demee tey élèves yi tey bu ñu waree jàngi tamit naka la ñuy def Hmm, jigéen ñi les personnes age bu ñu feebaree naka la def ba faju hmm? loo loolu yëpp c'est des problèmes à l'en finir éducation moo gën a garaaw tey soo xooloon maanaam pour pourcentage de l'éducation ci maanaam ci ñiy jàng tey soo demee dans les îles il y a les jeunes filles qui vont à l'école maintenant. ah bon xale yu góor yëpp émigré dem nañ émigration ñëpp jël nañ gaal yi gaal yi dem ñii ils ont péri dans la mer ñii am nañ chance yu yegg. parce que condition yooyu da ñëw tiim tiim sa kër nga xam ne man fii waratuma fi toog je suis l'aîné de la famille nga nekk góor war a jàng wut xam-xam. Hmm. Hmm? te condition yi ñu war a réunir pour nga jàng duñ ko réunir da ngay dem te l'exemple est là ñun lu ñuy wax dafa am fu ñu koy teg da ngay xool tey. Hmm. da xool tey euh, euh, image yu Fambine bi xoolal maanaam ñiy jàngi. ndax est-ce que di fa gis ay góor yu bëri. c'est y a beaucoup plus de filles que de garçons. soo si lu ñuy ah, wax. c'est vrai lu ñuy wax. Hmm. dañuy wax te yàlla tax. mais tu vois que des filles góor yi góor ñi ñëpp. ñëpp dem nañ ko dem nañ bitim réew. nous on contre personne waaye ñun lu ñu ñor comme ci dëkk bi lañ dëkk nañ ñu considérer. Hmm. département fu ñuy aussi ñu xam ne ak quoi qu'on bëgguñu. autorités yi di ñëw ci suñu dëkk yi parce que y a quelque chose nañ ñu boole ci programme dëkk bi indil ñu. Mhm. un programme spécial gandul maanaam ili l'électrification zéro. ah bon dans la commune de Djinda il y a que la commune de Djinda qui est électrifiée. yeneen yeneen communes yëpp amul courant. amuñ dara ak fi hmm? dëkk bi toll. mais accès universel à l'électricité bi gouvernement bi di bàkkoo kon fan la toll ci réew mi. c'est ça amul fen soo ñëwee li gën a graaw le liquide ndox. yaa yaa yaa dëkk bu ñuy wax fam ki bu ñuy wax euh, Roofange Bawut Vélingara léegi ñu dugg ci trois ans. amuñu ndox seen tuyau kese boo dagg seen tuyau. on na appelé toutes les sensibilités requises en commençant par le ministre Serigne Mbaye Thiam man damay tudd ay tur. ah oui. le ministre Serigne Mbaye Thiam parce que loolu moo tax ñu nekk fi ñu nokk message yaa ngi moo tax. message yaa ngi nii si sama téléphone. lan xaar moom pour régler loolu depuis trois ans. ñetti at on a apple le directeur de l'OFOR. on a appelé le directeur de CO. ci tuyau bu dagg supposons que si c'était à Dakar ici. Hmm. si c'était à Dakar mais ça fait même pas 24 heures. 24 heures bari na ci defar foofu tuyau bu dagg rek. léegi nag fi dëkk bari na fi dëkk bi tollu dëkk boobu. ñu toog ñetti atumaam yàlla wax dëgg yàlla amuñu ndox ak fi ak fi dëkk bi toll ci ndox. na ñuy jàngee. ban ndox la ñuy naan ñoom mais dañuy rooti da ngay da ngay jël daal def ay bidon. ci gaal peut-être événemen bi suñu ko mayoon ma ma wala image da ngeen di dugg ci biir gaal def ci ay ndox ay 20 litres vous partez à Diamniadio pour rooti foofu fi dëkk bi toll ci bidon cent ndox. benn bidon bu dee 200 francs. ma ubbi foofu benn parenté su fekkoon ne maire bi il était avec nous. mais ça ah. ça c'est incroyable. s'il était avec nous. oui au moins qu'il subvention loolu maanaam soo demee ba ci forage yu foire forage yu Diamniadio bi nga bàyyi fa benn cent 250 000 bopp pour ñu xam ne yow yaa ngi yaa ngi atténuer la souffrance des populations dund koog ñun il ne le vit moo tax nag vraiment mbir mi na président Macky Sall xam ne te waxoon naa ko fu ñuñ président je veux pas qu'on vous trompe dans la commune de Djirnda su re été suñu encrage toog ak suñu ngëm-ngëm contenir nit ñi. Hmm. ñëpp ñu ngi bëgg a quitter le marron le le bateau marron beige. ah man nag damay ragal ne fa ngeen jëm. honnêtement parce que. parce que ak problème yi ñu fi wax yépp waaw boobu ba léegi 2012 ba 2022. mënu leen am saafara ci seen ay jafe-jafe. mais même vous les responsables politiques nekk ci terrain bi vous êtes mal à l'aise tey naka ngeen mën a défendre le bilan de Macky Sall foofu avec tous ces problèmes. c'est ça parce que ñëw ñu ne la maanaam le département de Foundiougne le PAPH de Foundiougne nanga mais nous sommes pas nous de Foundiougne li mu def ci ay réalisation hmm. indil nañu ndox de taset mu ball gandul yëpp ba gandul yëpp am ndox ñu ngi ko ci ñu ngi ko ciy remercier. Hmm. loo on on a ni su la defal lu baax dañ koy wax. Hmm. mais li des moo ëpp fuuf. ah bon il y des priorités yoo xam ne il faut ñu duut ci baaram si tu viens à na par exemple il y a une école qui date de 1962 ba léegi. 1962. la seule école de de de de na capitale commune kese. loolu moom baabu yàgg du daanu ci kawee mais loolu ñu ñoo dëkk bi image yaa ngi ni ñu ñu cotiser pour réfectionner les classes gisuñu kenn monsieur le ñun la ñuy. mais Lamine xam nga ce qu'on va faire. dañuy dañuy jàpp jour. moi porte volontaire ñu jàpp si mhm. mooy ànd ak caméraman ñu ñëw jënd. dina ma neex. parce que li ngay wax nii faaw ñu faaw ñu wan ko sénégalais yi. ngeen gis ko loolu daf may neex soosey daf may neex. on va faire ça. ça là moom vraiment dina ma neex trop. parce li ngeen di dund nii ba pare le paradoxe mooy yéen ci Macky Sall ngeen nekk. fa lañ bokk la question mooy naka ngeen di naka ngeen koy défendre avec tous ces problèmes là. fa lañ bokk <laughs> mais difficilement. Hmm. wax loolu ñu doomu ma da ngay dëggu. Hmm. difficilement ci lu lu ñu mën a défendre. mais on ne peut pas défendre loo xam ne. l'indéfendable l'indéfendable là nous ne sommes pas dansés. am am ngeen problème aussi érosion côtière. dëkk loolu loolu loolu loolu naka la demee. ndox mi xam nga. avec bu yàggee mbaa communes yooyu mara day taal duñ disparaître. ah kay fa lañ jëm. parce que soo ñëwee Fambine bii tey. Hmm. soo ñëwee Fambine bi nga xam ne sama yaay fa la dëkk. Hmm. ñu baal ma ci personnalisation bi. dëkk boobu tey. jeunes yi ñoo jóg pour defaral seen bopp des digues de protection. des jeunes du village. de la commune des jeunes du village de la commune. te ma leen di remercier bu baax ñun ñoo jóg di defaral seen bopp des digues de protection parce que géej gi mu ngi nangu suñu dëkk yi après les autorités sont restées inertes dañuy xool comme ça avec ce patrimoine historique defuñu dara defuñu dara te pourtant dañu war a réagir parce que loolu. loolu le ministère de l'environnement moom moo moo moo moo yor en charge boobu te ñun dëkkuñ ci tali. dëkkuñu fenn nous habitons dans les îles du Saloum. waaw ah, c'est vrai c'est vrai que ñoom souvent li leen di tromper dañu yaakaar ne euh, érosion bi la côte quoi avec géej gi mais yéen ñi nga xamante ne ci ay îles ngeen dëkk. nga xam ne ndox rek leen wër aussi. pour man yéen yéen a yéen a war a nag sax ëpp priorité ci loolu. ci protection bi vraiment vraiment. parce que si on fait rien ces ces communes là dañuy disparaître. dañuy te li ñu gën a sonal aussi avec l'exploitation de pétrole de Sangomar mmh. on n'a pas été mis au parfum de la situation il la rareté de poissons oui mmh. finalement nappkat yi nappkat yi xamuñu fu ñu ah. jëm hmm. te ba léegi kenn intégré wuñu ci processus bi ah bon personne inte eh, eh, eh, waxuñu ci waxuñu ci boobu xamuñu fu ñu jëm jën amatul dara amatul ce qui veut dire que la vie est difficile. très très difficile vraiment ñun daal wax dëgg yàlla bëgg nañ daal autorité autorité xam ne rafetlu nañ ko. Hmm. rafetlu nañ ko waaye ñun saraxuwuñu on commande pas hmm. ci mbir mi lañ bokk mais yow soo toogee par exemple ba mu am lu xew ñu ñëw. Hmm. après dootu lañ gis dafay xaw a doy waar. ministre bi ñëwoon foofu euh, Fambène moom lan moo ko fay ñëwoon. Mansour c'est le ministre des des des infrastructures routières. looloo ko fa indi woon. affaire affaire point boobu. wax dëgg yàlla tenir na ay promesses yoo xam ne. Hmm. honnêtement man gars yi dañuy wax ne la promesse ne tient à ceux qui y croient. Hmm. mais nag dama gëm ne ba tey. Hmm. c'est réalisable. d'accord parce que solution bi ñu indil. c'est pas une solution définitive. gars yi dañ ñu may gaal. ah gaal yi ñaata déjà. benn la gaal lañ fa gis de. benn gaal benn gaal lañ fa gis. bu war a def la navette entre. mais est-ce que benn gaal doy na pour combien d'élèves aussi. même su dee su dee benn gaal. Ah. ana les autres villages. voilà xam nga yow gaal boobu. gaal boobu mënul dem jëli jëli jëli élèves élèves élèves maya yi mënul dem jëli u fa fa fa ngajoor yi. te ilio yi dañuy soriwantoo. te îles yooyu dañoo soriwantoo. Hmm. te chaque jour dafa am des élèves yoo xam ne dañu def piéton pour ñëw tax dama waxoon ne. Euh, gars yi ñu ngi def ce qu'on la conférence de Berlin <laughs> parce que yow munoo woote CRD boo xam ne les dignes fils du territoire ñi nga xam ne ñoo maîtrise hmm. zone bi fekkee wuñ ko. kan moo organisé CRD. le gouverneur moo ko organisé woon. mooy la dame la gouverneur de Fatick. ñëw foofu. Hmm. on aurait amee ñoo xam ne dafay dëkk dafay toll foo xam ne politique amu ci so amu ci solo mais suñu ci dugaloon ñu wax ne Macky Sall jaaraama gaal gi wax dëgg yàlla baax na. mais ça ne règle pas le problème. benn gaal sur combien de combien de communes yoo xam ne ñu ngi ci biir ndox mi. voilà élèves yooyu naka la ñuy def. te et puis li li essence li essence di jar. <laughs> voilà. Hmm? ne la wóor ne maanaam gaal goo xam ne lu mu gàtt gàtt dañ ciy def par exemple vingt mille francs essence par jour ils ont dit que dañ dinañu assurer essence bi à court terme. xam nga loolu la ñu wax à court terme léegi nag supposons maanaam dotation bu su jeexee kan moo ñu jëndal essence pour élèves jàng si moo tax nag c'est un impératif. que maanaam ni ko ministre bi waxee te ñu ngi ko ciy xaar. Mhm. ñu def pose première pierre. la moom engagement bi mu jël lan la tabax carrément pont. tabax carrément mhm. pont boo xam ne dafay nekk en conformité. Mhm. avec avec le monde actuel fi mu nekk nii. loolu la ñu wax xam ne oto yeeg moto yeeg yëpp. dañ ci mën di jaar. te loolu mooy régler nag solution bi définitivement. mais solution boobu su amul. lii maa la ko wax fii dans un an deux ans di ngeen déggaat problème boobu waaw te parce que yow da ngay xool entre Fambine am entre Fambine Djirnda un kilomètre cinq cent cinquante huit. Mhm. si vous partez à Maya ça fait même pas quatre vingt mètres. oui Ngadior c'est mhm. quatre cent mètres. vraiment c'est réalisable. oui oui léegi ku tabax pont pont wu Foundiougne kay ak ni mu toll. ak ni mu toll. war a mën a tabax pont boo xamante ne di di diggante ñaari village quand même. wallaay ah. mhm, mhm, mhm. mais euh, Lamine vraiment seen problème yi moom nga baal ma mais xam naa ne bari na bari boo xamante ne ñëw sur place rek wan ko Sénégalais yi ñu xool ko. Ah, dundal ko seen bopp. loolu rek jàpp naa ne moom moo koy moom moo koy faj. Ah, leneen li aussi mooy seen jafe-jafe est-ce que aussi ñeneen ñi tamit vraiment parce que tamit réew mi bëgg nañu ko bëgg a jël. est-ce que ñoom it ñoom tamit ils sont courant de ce qui se passe man xam naa ne sa activité yi boo ko jëlee boo ko jëlee damay ragal nga dem ci opposition bi est-ce que c'est pas est-ce que c'est exclu tey nga jógee APR dem ci opposition bi pour que nag ces problèmes là soient réglés définitivement ci commune bu Djirda. man daal man daal Socé. wax naa nit ñu ne le le leadership. Hmm. ça s'affirme ça s'incarne. man ku ma xool xam ni ragaluma. loolu moom. Hmm. bari naa kersa lool. yar lañ may taggee dans le village dans le département mais ku ma xool xam ne ragaluma mm-hmm. on me snob on me snob nag de partout mm-hmm. amul un leader un leader d'opposant bu ma waxul téléphone mm-hmm. mais man dama nekk nit koo xam ne dafa am na ñu yaree te loo gis dafa am fu muy commencé comme maanaam bind nañ yuuxu nañ wax nañ te kenn dégguñu gelé nañ suñuy activité ba li gën a grave mooy la vente de ces cartes la il y a aucun responsable du département qui m'a appelé au téléphone ak li ma représenté ci département de Foundiougne bu ñu xool sama kaddu bu naqari. mais mais ñoom dañ laa considéré comme opposant wala quoi. non xam nga moom franc parler. te yow ba léegi officiellement déclaré goo ne bàyyi nga. bàyyi nga affaire te lii jugé na ko moom franc parler. Hmm. dafay gêner dafay gêner sénégalais. Hmm. ci lu ëpp. dafa am franc parler boo xam ne soo ko amee nit ñi dafa am hmm. fu ñu lay classé. waaw waaw moom dëgg la malheureusement. te xam nañ ne man ñi nit simple la mais nag quand je parle damay wax affaire yi dama koy waxee ni mu nekkee ndax dama gëm ne aussi loolu mooy sama trajectoire te noonu lañ ma yaree. quand tu les choses telles qu'elles ku la dégg dégg la ci ci ci position boobu tey. bu subaa su la déggee feneen. dina xam ne kii principe ba mu doon défendre dans la l'APR amul ko fa da ko wuti feneen. Mhm. mais li wérte woon mooy jëlee nañ suñuy activité te di xaar nag. di interpeller le sous-préfet de l'arrondissement de Niodior. Mm. di interpeller le gouvernement territorial. Mm-hmm. Hmm? l'état civil de Djirnda ñu clarifier ko. parce que tension sociale ba fa mm. am. bi mu tàkkee ba léegi euh, lan lañ fa jot a def. boobu ba léegi xam nga xam xam nga d'accord naa d'accord naa ne mairie ba. Mm. y a des incontrôlés yoo xam ne dañ ko yàq. honnêtement soo fa ñëwee di ko gis mais gis nga avant avant avant avant avant élection yi. gars yi dañoo dañoo dañoo jël état jir jirna bi. Mhm. yóbbu ko ci seen kër yi. ah bon waaye. ah loolu mën nekk. loolu lañ gis. état civil bu maire bi ñu yóbbu ci kër moom lañ moom lañ jël. Hmm. yóbbu ko ci seen kër yi xam nga moo tax ma ne la. këyitu juddu yeeg lépp ci kër yi lañ koy def. voilà xam nga moo tax ma la xel du dugg arjana est-ce que li nga xam ne moom moo ñu dal nii. maanaam est-ce que est-ce que nekkul bi ñu bi ñu bi ñu jiñ nii est-ce que c'est pas parce que ñoom dañoo sentiroon ne ñun on on on allait gagner les élections impérativement à trois mois des élections maire bi xamoon na ne c'était fini pour lui léegi li tax ma wax la ko le dossier est en justice mais je pèse mes parce que gis nga lii. Mhm. c'est des extraits de naissance. lii nga yor nii ci enveloppe bi lii. waaw yii ñu ngi fii. Mhm. ñoom ils ont déclaré en présence de leur avocat que l'état civil a tout été calciné le PALAC maintenant bi bi may wax ak yow mhm. su ma soxla accès de naissance je pars sur Fatick ñu yóbbu ma ci département de tribunal départemental de Foundiougne je peux quinze à trois mois sans avoir mon accès de naissance ndax dafa jaar constitution te lu may wax dafay leer à notre grande surprise on a vu le camp du maire ah. ñu leen di defaral des copies littérales di leen di di leen di defaral ay extraits de naissance yoo xam ne il passe pas par la constitution. waaw ah loolu xel lu ci war a mën a xalaat. état civil bi lakkuñu ko nañu ko génne rafetal suñu dër suñ ko génnewul aussi yoon dinañu dinañu jox suñu suñu dëkk. Hmm. voilà nous sommes à notre deuxième projet le maire maire bi ñemewul ñëw. ah bon renvoyé nañ ko deux renvois deux renvois ñemewul ñëw. on a un autre procès boo xam ne le 29 décembre la nekk su fekkee lu mu wax dëgg la mais nañu wuyuñu affaire bi affaire bi on le tire au hmm. ñu tire ko au mais li wér te mooy. na président Macky Sall xam ne responsable bu doy ni Lamine Ndiaye dans le département de Foundiougne hmm. plus particulièrement dans la commune de Djirnda amul fenn luñ ko ci mën a wax ngir un lobby tapis dans l'ombre du département ñu ngi koy jox ay information yu baaxul ñun nag fi toll nii nag toog nañ ci suñu ruq hmm. di déglu suñu base si y a une s'il euh, su amee réaction hmm. pour wan ñu wan ñu ne nous sommes valables à son parti. Hmm. nous sommes là et loyal su fekkee ne nag defu ko d'un bref délai on prend notre responsabilité. Hmm. on prend notre responsabilité parce que dañoo sonn. responsabilité mooy. mais on prend notre responsabilité. quitter le parti quitter le parti. ah bon loolu koy amul wax ba léegi hmm. ñu ngi ci parti bi di liggéey. soose. man dama samay wax dafay leer ba ñu ci parti bi di liggéey mais au cas où on ne rétablisse pas dans nos on quitte le parti parce que ku jëlee activité am. ku doon liggéey. di def ay animation de parti di dem fépp ci sa gaal di dem feti xooli paay imam bi di def lépp ba toog les bras. bientôt ça fait élection au conseil euh, c' ACCT bi c' était le mm. cas. Mm. deux ou trois mois. département bi xam nañ ne man arrêté naa samay activité personne ne m'a appelé au téléphone. au contraire ils se font fi de ce mm. mais ñu ngi nax seen bopp. maintenant s' il y a réaction. mais lu ci topp. aussi est-ce que est-ce que loolu aussi du gën a yokk doole maire bi aussi. non non kooku mm. maire bi. maire bi même ñi ñëwoon démb. Mm. à Fambine. Mm. su fekkee ne am nañ seetlu ils savent pertinemment que le maire est très minoritaire. parce que yow lu day ni commune nu na ku toll ni le ministre Mansour Faye accompagné de deux autres ministres. ah day ñëw foofu. ak ak mobilisation bu fa am. Hmm. la mobilisation était faible loolu trop faible. waaw ah commune nu Djirnda. Hmm. treize mille et quelques habitants. nga dajale même pas cinq cent personnes xam nañu le maire est minoritaire. Hmm. soo ñëwee tey commune nu Djirnda tey yow fa vas venir là-bas. waaw loolu man moom j'ai pris l'engagement foofu moom dinaa fa ñëw. le maire foule difficilement mm. la capitale de la commune de Djirnda difficilement ñemewu faa ñëw mënatu fa convaincre kenn. te base base base électorat commune Djirnda c' est Djirnda village qui a qui a. qui a 1500 mm-hmm. électeurs ñi des yëpp ay 100 nga fay fekk ay ay ay ay 200. Mm-hmm. léegi nag fi bastion bi ëpp tey ñemewoo faa ñëw mënatoo fa mm-hmm. convaincre kenn en plus tu as perdu tu as perdu Félire et Fayako. tu représentes plus rien là-bas. mais nag li may wax rek comme nit ñi moom dañoo yaakaar ne eh, politique dafay am nu muy demee. mais wait and see nañ dem rek. <laughs> on verra on verra on verra euh, est ce que est ce que soo bàyyee aussi yeneen leader politique yi fi nekk nii kan nga ci yaakaar ne vraiment war nga mën a waxtaan ak moom juboo déggoog moom ci régler vraiment les problèmes de Djirnda de façon définitive nag parce que Mansour Faye bi mu fi ñëwee démb mais il pouvait profiter de l'occasion pour pour def tournée dem ci village yi xool ay jigéen yu wasin ci gaal ay écoles yoo xamante ne depuis 1962 village yoo xam ne mënuñu am ndox mais yooyu ci problème yi la bokk affaire bi du du pont bi kese. loolu loolu sax lañu doon xaar ci moom démb li tax nag li tax politique xaw a xaw a xaw a xaw a xaw a ñagas. Mm. pourquoi ils on fait détourner le ministre Mansour Faye de la visite du lycée jiir na Djirna. ma doon na fa ñëw xool. parce que le maire ak bien que du domaine parce que moom euh, ki yore euh, éducation bi leer na ma ne xam naa ne mosu faa ñëw. mais c'est ça mosu faa ñëw. ça c'est problématique. parce que parce que le maire a a a largement perdu à Djirna bugg fa ñëw te loolu lu gouvernement bi war a xam la Macky Sall la war a xam loolu. mais waaw mais école boo xam ne 62. 62 ba léegi. léegi dañu bàyyi ba mu daanu ci kaw booy. ñu bëri dee ci maanaam d'état li ñu sama yaay bu nekk sage femme d'état retraité en 2007 fa la jànge man mi fa laa jànge sama doom fa la jànge te bi léegi yow yow di fa ñëw xam nga la vérité n'a pas d'incohérence hmm. gis nga dëgg amul amul amul amul layam layam bi dëgg yàllaa ko moom yow soo fa ñëwee vous allez voire de votre propre yeux que ne Lamine lu muy wax nii. xol la koy waxee mais lu muy dund la. il rien de bon dans la commune de na te pourtant ay góor ñoo fa dekk. lu fa baax. ñun ñoo ko tabaxalal suñu bopp. maire bi berren gii il a reçu ses fonds de dotation et ses fonds de concours. il n'a même pas fait de délibération. problème yu bari yooyu am ci commune bi yëpp moom yan action la ci la ci la ci la ci def pour que vraiment ñu mën ko régler. jëlu ci benn engagement xam tamit la jëlu ci benn engagement. Hmm. un conseil municipal qui ne s'est jamais réuni du durant durant janvier deux mille vingt deux ba tey. bañ leen installé ba léegi conseil municipal. amul commission amul dara. lu ñu xaar amul mais moom la ñuy laajte. <laughs> waaw mais. ah nag seen seen dëkk ba neex na. <laughs> un maire élu depuis boobu ba léegi tegul commission deful réunion conseil municipal. y a aucune te lu mu wax rek. mais yan raison la joxe ci loolu. mais du joxe raison il est à Foundiougne ki nga xam ne moom lañu yaakaar pour pour pour mu rétablir defar loolu soo tuddee tur tur nit ñi dafa yaakaar ne leneen la mais amoo animosité ak kenn monsieur le journaliste. Hmm. je n'ai aucune ami animosité avec personne mais j'ai appelé ki ma yaakaar. mooy mooy le sous-préfet de l'arrondissement de. ah oui moom a assurer le contrôle de l'égalité. woo ah, son job. loolu ko est-ce que yow li xew dans la commune de Djirnda ndax yaa ngi yaa ngi koy xool ma comme Djirnda dafa am problème on attend un délai de six mois pour installer les commissions six mois de janvier six mois bientôt la fin de l'année les l'orientation budgétaire qu'on avait fait ah le vote de budget yi ñu defoon objectif yi ñu jëloon. dara atteindre ñu leen. waaw mais mais mais conseil municipal qui s'est jamais des commissions qui ne sont pas installées mais maire bi moom kon nu muy liggéey. toog Foundiougne il est il est à Foundiougne di doxantu ci suñu suñu suñu xaalis il n'a aucune orientation politique de la commune amul ci benn vision lu dul autorité di ñëw mu def sa sa sa petite mobilisation tëggalu ay gamb nit ñi fecc dem ñibbi. aux élections, on, on, fait, on fait le job. On gagne. Après maintenant. il faut que ñu recours du du mu ñu fenn. d'accord bon peut-être aussi xam naa ne dina xool émission bi moom aussi on va essayer de l'inviter bu fekkee mën na ñëw tamit toog ñu waxtaanee problème yi bu ko defee moom it. mu joxe sa version des faits daf ci am solo. trop euh, euh, léegi Lamine peut-être ñu jeexal émission bi euh, li nga fi wax yépp yi ñaan yàlla le président de la République dégg ko. Mm-hmm. na xam ne aussi ay sénégalais ngeen comme ñépp. Eh, li ci xaw a paradoxal mooy yéen ci moom ngeen far far ci moom moom c'est à lui de régler les problème dans ce pays ba pare wax dëgg yàlla da mel ne yéen dañ leen a mel ni bokku leen Sénégal. c'est ça eh, tey der solaire yi ak si wu fa apparemment. amuñu on a rien. lu tax l'éclairage public zéro amuñu te pourtant chaque année chaque année le maire dégage un un un fonds de fonctionnement de 2 millions d'éclairage public te lampe publique Djirnda depuis 2002 bi léegi lampe publique takkul. <laughs> d'accord soo c'est grave. c'est c'est très grave. c'est très grave. waaw loolu moom. c'est très grave. doy na waar doy na waar doy waar doy na waar léegi Lamine vraiment ñu ngi lay jaajëfal. bëggoon nañu gën a xuus ci waxtaan wi peut-être bu fekkee am na point yoo xam ne jotuñ ko abordé nga bëggoon ci joxe sa avis aussi ma bàyyi la nga nga joxe ko très rapide. non mm, wax dëgg yàlla soo see maa ngi lay sant aussi. Mm. di sant euh, la commune de Djirnda soutien Lamine Ndiaye. Mm. di sant aussi sympathisants yi. yow di lay sant personnellement. Mm, ñoo ñoo ko bokk. parce que c'est pas ça n'a pas été facile. pour mm. nous le micro. Mm. vraiment ñu ngi la ciy sant bu baax te ñëpp xam nañ ne on n'a rien dit de mal de cette émission. c'est le Sénégal ku nekk am nga droit. Mm-hmm. wax li nga xam ne moo la neexul. Mm-hmm. ci yar ak ci teggin. tout fait ñu ngi sant ñëpp di wax nit ñi aussi nañ gën a dajaloowaat tappe xol yi ci li mën a jëmee commune Djirnda. Mm-hmm. ci kanam. ndax problème yi mënuñ ko citer bëri nañ ñu ngi rappeler aussi président Macky engagement yi mu jëloon Fatick dans sa mu toog ñu toog. Mhm. gëmuñu kenn ku dul président Macky Sall waaye mënuñu demee ci nii moo tax on a croisé les bras jële suñuy activité mhm. di xaar un répondant suñu soxlaa comme ni ma la ko ci émission bi xayrul suñu soxlawul ñu continuer notre travail parce que dañu gis ne aussi politique. Hmm. c'est un sacerdoce. Hmm. dafa nekk loo xam ne dund la. maa ngi sant aussi ñi may woowee les cerveaux de l'équipe mooy ñii ma àndal. Hmm. waaw mooy ñii ma àndal wax dëgg yàlla. suñu chauffeur bi. Daouda kii ya malade yaa Badara kii ya à jir à ah, Doudou kii ya à Jirnda. yàlla Badara mag ñi nekk ak jigéen yëpp maa ngi leen di sant di leen di wax ne mbir mi dafay door a commencer. te wax naa leen ne euh, euh, gis nga euh, maanaam li ne fii. Hmm. le plus grand psychiatre du monde soo ko ko ubbilul. Hmm. il il pourra pas détecter ta ta maladie. Hmm. <laughs> mën na ko xam c'est vrai. ñun nag heureusement on a un mental d'acier kenn mënuñu perturber te yàkkamtiwul kon nag tôt ou tard ce maire qui est là. à se déambuler avec notre deniers publics dinañ ko fi jëlee maa ngi wax nit ñi ne aussi. nañ taxaw ci dossier état civil u Djirnda bi tout citoyen a le droit d'avoir lu mu soxla te constitution bi may ko mënatuñ dëkk nag ci dëkk boo xam ne maire dafa làqu ci ay gannaaw autorité di defar li ñu ay extrait bàyyi ñii état civil u Djirnda bi li làkk bokku ci ci kër yi mu nekk lu dossier étant justice mais on le dira dinañ ko wax les preuves la là sont avec nous ñu ngi sant aussi mbooloo mi yëpp sant tout le monde wax dëgg yàlla di sant suñu mbokk yi suñu wajur yi. Mm. di sant aussi suñu sëriñ Seyda Ndeye Khady. Mm. ñëpp ñu ngi leen di sant wax dëgg yàlla. di ñaanal ñëpp di sakku ñaan ñëpp wallaay. jërëjëf mm-hmm. merci beaucoup euh, Lamine Ndiaye euh, responsable politique APR. Euh, bien que dafa jël décision gelé ay activité am dégg ngeen raison yi mu joxe aussi certainement jir na moom moi je prends il faut ñu programmer benn visite de terrain boo xamante ne. Euh, on va voir vraiment li nga fi wax yëpp il faut que aussi ñu wane ko nit ñi nit ñi mën ko xam parce que nag ay sénégalais ngeen comme ñëpp mm-hmm. ci réew mi ngeen bokk dëkk boo xam ne pour nga dem fa déjà rek da jël gaal daw euh, ñaari waxtu ci ndox mi euh, ndox mi doyul courant bi doyul élève yi mënuñoo jàng correctement jigéen ñi di wasin ci ay gaal bref tout ça dafa il faut ñu dem fa il faut ñu dem fa pour xool et wan ko wan ko askan bi donc mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal Lamine vraiment merci. merci euh, di lay encouragé aussi. merci di lay encouragé bu baax. Euh, donc yéen ñi toogoon di teewlu émission bi ñu ngi leen di jaajëfal dinañ jox rendez-vous suba incha allah ak beneen gan fii ci 2A TV la chaîne du peuple seen émission seen kaddu. bu ñu nee ba benn waxtu jot maanaam 13h soxna Mame Diarra dina fi ñëw tënkal leen xibaar yi ci kàllaamay wolof ñu ngi leen di jaajëfal jërë ngeen